gannaaw bi ñu tàmbalee suñu waxtaan ci ci turu suñu borom sant ko julli ci yonentam bu tedd di nuyu gën jaa sell yi nuyoo ñuy jullit ak moroomam li ci xol boo xam ne cofeel moo ko fees ak ndëmbeel itam جيرين يان إن برام نفل نقول لك وليو يو أدنى أليو على الآخرة لك فيه وقت انا تي جمتي سرين بمبغ بي تبان نتي أي طلوائم يو بري يو خمي بري بجنك فاسنا دل أكيمان منوار كيف أمو بيدو عليه الصلاة والسلام من يير كيف كي يو من جرين كيف كن را جرينو مودي كو خامي دوندم جيب دا فا فيس اكي واري اكي كيمان خيول اك سما بي يحط اللي بدون ده فيه بالدبل برا من اللي بدون ده انت بس الله تعالى تعالى ويك مو مسجد التام ابنين بدي الله خمنا بالجحلة وخمنا هاد جحلة بالدولة بدون ده دلو جات ادو ده بيوار اكون تسن برا من خليمان خندنا بدون ده يب الورا ام ببسا بتاعه بدرجة سوي mu gën a noppi nag ci ñeent yoo xam ne sotal na ko ba noppi dañ ko waxtaane lu nekk ci dëkkuwaay boo xam ne du dëkkuwaay rombuwaay du jaaruwaay boo xam daf fees dell ak secret fees dell ak i kumpa waaye lépp di ay dërs di ay leçon yu ñuy jàngal di ñu yee di ñu delloo ci suñu muy jaam ñu indi muy suuf ci ci bopp muy asamaan si ñu tiim jant beeg weer wi lépp lu taxaw ci kaw suuf muy ñax muy mbindeef muy dox di nit di leneen di jinne lépp di ay dërs yoo xam ne dafa ñëw ngir war noo delloo suñu borom war noo xamal suñu borom war a yëngal suñu xol war a taxaw ci ñun taxawaayu jaamu yàlla di ñu jàngal yàlla di ñu ko xamal dogalam yi lëkkoog mbindeef yi mbindeef mu ci nekk li ko muur ci dogal li da ci kanamam ci dogal li da ci gannaawam li da ci kawam lépp di ay dogal yoo xam ne bu ci nekk ak li ko tax a jóg ak la muy jàngal nit ki dogal yi daw ci kaw mbindeef yi fekk na mënu ci dara seen rawante ci xel seen rawante ci sellu xol seen rawante ci ngëm seen rawante ci cawarte ak ci njàmbaar yëpp dogal yi boole leen xam ne ci am xel ba xelam jéggi dayoo ak ci xamul dara kenn mënu ci jël sa wërsëgu moroomam kenn mun cee jël sa cërub moroom xam ne suñ borom yee nanu ba tey ñu gis borom xel mu mat lu ko defar tëkoo ku gàtt xel ak defaru fekk ko fa mu nekk ndax shaa'ir bu nekk am aaqilin aaqilin a'yat madaahibuhu wa jaahilin jaahilin talqaahu madzuqa hada alladi taraka al-awhama xaa'iratan wa sayara al-aalima an-naxriira zindiqa bari na aji xelu bu du borom xel boo xam ne ay mbiram jaaxal na ko te mënu jaa liggéey dara bari na ku réer ku xamul dara gàtt xel su borom wërsëgal ko ba mu ne gàññi mu xam wërsëgu baatin la wala zahir wala wu aduna wala wu alaxira mu ne nag lii mooy li tax nit ñëpp jaaxle xamuñu nu ñuy lijjante mbir mi te li ci war rek di delloo ko borom bi nga xam ne moo sàkk lépp te lenn lu ci nekk ak la tax mu sàkk ko fa mu ko war a jaarale fu mu ko jëmee يبقى من قوي قوي في تقلبه محذب الرأي عنه رزق منحرف وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف قال لي ما نعمون ده خم نكون أبي موم جار جار يبارك نخيم خم يبارك يمن بتي جانبي بعد جم جم أكبر من أبي يقول شيء بوه وأي بخلم ما تعرف يب بدو كي جم نشيب أكبر من نكون عندك بتيم lu jeex ak lu dul jeex mukk bu nga amee xel nga tànn lu dul jeex mukk te mooy di dem alaxira li jeex di adina nga wacc ko wal ko gannaaw du mu jëpp di ay yëngu yëngu yoo xam ne xel a koy womat jëf si doom aadama ji nekk di liggéey di jaamu di tawxi ndax nit du tàllal tànkam du ko bank du yëkkati loxoom wala mu tëree ko du dul tabaxal nañ ko kër ca àjjana tabaxal ko kër ca safara waaye fu mu jëm ci kër yooyu mooy mu ngi aju ci la mu mujj rek bu fekkee ne tawxid la mujj génn àdduna yowoon ca safar yëpp ñu wér ci dale ko keneen bu fekkee la nga xam ne nag moo doon li ñu ko tabaxal ca àjjana muy borom daan waxtaane ci sëñ Tuubaa suñu waxtaane ci lu mu loolu jëf nag ak soppeem bi ci sellal rek kon bépp coono bépp métit bépp njàqare bépp ñàkk bépp tumuranke lu mu mën a doon rek day jeex waaye jeexit dama ko wëcc mooy li am solo li shaayir wax ne nag wi xayaata fa tatlina amanina noo ngi taxañ dund gi suñu mëbët yi dinoo taxañ rek ñun tam ñu dal si gaaw jóge rek naka noonu kon doomu aadama ñëw ci adduna ngir fóot ñëw ci adduna ngir jàng ñoo ci àdduna itam ëllëgee li mu doon jàng ñu laajte ko bu war a tàmbalee ci jàng boppam xam boppam bu xamee boppam dana am tawfiq te dana texe waxtu wu umpalee boppam nag bu ëllëgee mu rëccu nga xam ne kon jullit mooy ci fas yéene sellal boppam sellal ay jikkoom sellal xolam ba léppam jag mu soog a génn àdduna ñu ne jullit fu mu tàmbalee ñu ne ci gëm gëm mooy nangu nekku yàlla nangu melam yépp ak turam yépp ak do ak i dogalam ak li nga xam ne moom la yonent dige yépp ci luy ñëw ëllëg ne ko nag léegi da nga koy gàttal ci melal boo xam ne dañuy dal di xam ci gëm na muy melal dëgg mu ne al muminu ki nga xam ne moo gëm dëgg al imaanu bil qalbi lay tàmbalee mooy xam kumpa loo xam ne xamula ca dara waaye nga gëm ko rek dañ la koo xabaar rek nga gëm ko nga mel ne gumba boobu nga xam ne day palam fu mu jëm gisu ci dara waaye danañ ko nag yoon waa ngi nii toppal sa kanam rek bul jàdd ndeyjoor bul jàdd càmmooñ te bul taxaw fi muy jaar gisu ci dara waaye gëm na ne fi jubale njëxam bu doxee rek dana àgg fa mu bëgg a àgg waaye dox bi muy dox bu kenn ne ni ñu ko sant ne na ko doxee na koy jéggee jéego yi bët yi teppali ko ndànk muy gis ndànk ba gis su muy teg tànkam di gis ba gis li ci kanamam di gis ba jàlloog fa mu jëm di gis fa am ak lam fa moom mu ne kon ki xam ne moo gëm ngëm ay daraja la gëm gi lay tax a te mooy ngëm gi nga xam ne boo ci amee pepp zarra rek mucc ci safara wala boo ci mucc lu yàgg-yàgg da nga ci génn dem àjjana ak ngëm bi nga xam ne moo lay xëcc ba nga mel ne da ngay làmb suñu borom daj ko di ko xool di ko gis di ko dégg ci say mu ne kon ki nga xam ne mooy aji gëm dëgg mooy ki nga xam ne jullit ñi wóoru nañ ko ci seen deret wóoru ko ci seen alal wóoru ko ci seenu der nga xam ne jullit ñi duñ ko woon gannaaw ba mu teg seen der lu ñaaw mucc na it mucc nañu ci ay loxoom du leen gaañ du fab seen alal du fab seen dara julit muslim itam mooy ki nga xam ne julit ñi mucc nañu ci lamiñam mucc ci loxoom mujahid bi mooy ki nga xam ne jihaarante naag bakkanam ba nag ko mu ne nag léegi li nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane mu di julli goo xam ne sëñ Tuubaa daf ko julli woon ni ñu ko waxee ci kaw géej gi lal daram ci kaw géej gi julli ci boppam ni mu toll ak na mu demee fi ko sëñ Tuubaa teg bi xam ne mu ngi yëkkati doom di ko sànni ci géej gi li ko waral lu mu gisoon lu mu déggoon lu mu gëmoon melow mu melow woowoon ba tax mu àttan loolu bi nga xamee ne ni mu koy def na mu melowoo ba mu ko defagul na mu melowoo woon yoon mu jaaroon ba àgg ci loolu ndax iman moo di ngëm ngëm ñu wax ne ay daraja la ngëm gi li nga gëm te gisuloo ko ni ma ko waxee sànq day dem ba nga xam ne yaa ngi mel ne ku ci teg sa bët ndax da nga koy yëg yëg goo xam ne day mel ne boo lambee daj ko nga xam ne moom ngay gën a yëg li ngay teg sa bët li Seydina Aliou waxe woon ne su fekkoon ne muri nañu kumpa yépp du tax sama ngëm dolli ko ngëm dëgg day xam ne dara mënatu koo yokk dara dootu ko mën a wàññi buñ la waroon kumpa yépp it du tax mukk sa bu fekkoon ne li nga xamoon lépp itam weddi nañ ko ba mu set indi la ay tegtal yu tax loolu mënatu la sax mënatoo ko lay sañ du tax sa ngëm dara wàññi ko bu adduna bépp wal bi di ko woon ne lii nu fas kat bu noonu du tax yow dara wàññi ko ci na ko gëmee woon rek ngëm googu nga xam ne fa mu yem ca dara ji sa mujj ca àggoon dogu bi nga xam ne moom la dogu woon mu di dogu boo xam ne gën jàmma si dogu yonent bi sallallahu bi nga xamee ne Abu ñu ko doon aar waa Màkka ñëw nañu ñaar yoon ba ci ñetteelu yoon naan ko arsul sa xale bi du nangu kat mu wéyee li ñu wéyee di xas suñu yàlla yi di doxloo suñu baay yi di fab suñu jaam yi di teg ci suñu kaw di yàq suñu commerce ko mu duñu ko tere di ko araamal di ñu ñu ko nangu bi nga xamee ne dem nañ ba nga ne jàpp na ne Abu Taalib dana ko beddi ko ndax ci saayu jamono bi mu gis ne ko su fekkoon ci ne dañoo ma bi ak tàngaayam ak diisaayam teg sama ndeyjoor sab weer wi teg ci sama càmmoñ ngir ma bàyyi lii du ma ko bàyyi mukk ba mu may dee wuute xam ne loolu moo di ngëm boo xam ne àgg na fa doyob ngëm moo di dogu gu àgg fa dayob dogu takku mooy mottali dogu takku takku boo xam ne bu fekkonte ne asamaan si suuf si dafa takk di jër jëri yi yow ci du tax sa ñaaw sa rafet njort ci yàlla dara wàññi ku ca wala gëm ci bu ko gëmoon wala mu tax nga yox yoxi dara wala dara wañu ko ci yow loolu nag dafay wane jaar jaar yi mu jaaroon saa ci téere tubaab boo xam ko bind dafa jàngoon dunduk sëriñ bi wax ci li nga xam ne ci boppam foofa la xelam toll ndax li mu gëmul diine xamul luy diine benn bis jant bi so kër sëñ tuubaa safara jàpp ci di tàkk safara yu jàpp nga xam ne rëy na jaxal fu bari waxtu wi jot mu ne nan dem ci jàkka ji waajal leen julli ji nan dem julli yi ñoom lu ñu wax ñu lay dafa xamuñu luy nit ko luy nit koo xam ne àgg na ci safara ndox yem ci moom ko wax suufa yem ci moom bëggatul dara lu dul yàlla xolam dara nekkatu ci lu dul yàlla li yàlla digle dara ci adduna mënu la tax lu dox ci diggante bi ba mu yéexe ko wala nam ca saware woon wala nam ko daan teewloo mu teewloo ko dara mënu la tax loolu nga xam ne noonu la ñaax ñuy julli ci julli bi wala ne safara wiy tàkk xam ne ndigal rek lay topp te fañ ko yem loola yem te safara day daal di fàttali aji gëm ji dëgg safaraw àllaaxira ndax safaraw adduna ndegam moo mën a yàq mën a laal yaram mu metti mën a yàq lu bari rawatina safara wa xam ne buñ ko misaalee ci fii day mel ne ndox ak safara wii mu boole ci njàmbaar bu tax xeeti métital yi xeeti tiis xeeti xañ xeeti tumuraante yi ñu ko def yépp musu la tax dara ci jaamu yàlla mu wàññi ko wala mu gën ko woyofal tawat munu la tax sori ay mbokkam ak ñi mu xamoon munu la tax ci digg noon yi nga xam ne ñoo ko gën a mën a xorñooñal fa la gën a mën a sellale jëfam fa la gën a mën a matale jëfam fa la gën a mën a wan noon yi la nga xam ne mooy li ñu gën a bañ li ñu ko gën a meree mu àgg ci maandu itam maandu boo xam ne du tudd doomu aadama mukk fu mu nekkul am na kilifa bu mag boo xam ne ci kilifa yi jaxasoo ne moom lañ nekk di bis ne koo ko jaxasoo ne moom am na bis mu nekk ak beneen kilifa gu mag ci këram ñuy waxtaan ba mu ne sëñ Bamba nangam nangam mu ne ko ah nga ko ne dul tudd xam ne du tudd ayib yi nit mukk du tudd ayib yi dara du sikkal dara ndax da ngeen di waxee lil basiratu ka mislil basari yamnauha ka darratin min nazari gisub xol moo di basira muy mel ni gisub bët li nga xamee ni li gën a tuuti bu duggee ci bët dana tax nit ki dootu mën a gis bu baax gisub xol noonu la xeebadee lu xaraam wala lu ñu sib wala lu ñu tooñ xool dara ci awray jàmbur wala xalaat dara ci ayibi jàmbur wala tudd ci sa làmmiñ dara ci lu neexul nit ñu nga xam ne bu fi nekkoon bu ko déggee mu naqari ko li nga xam ne noonu la bët xeebadee lu toll na tekku suuf ci tere koo gis wala gérer ko noonu la basire gisub xol non la fattoo ci lu gëna a néew ci toy ci mu wut ak maanu loolu moo tax moom mu doonoon ko xamne ak maanoom dafa mat mat go xamne dara mënu ko wàññi nek li de ku ñu wax sufyaanu sawri neena man de suñu borom xagn ma julli guddi ak naafila guddi ni mu amee daraja ak nu yool bo xamne du jeex mukk ci bammel ndax yi nit ñi jëf ñu di leen dencal yool ba ci bàmmeel yëpp ñu di fa tëdd ba ba saadi taxaw ñu di ko jëriñoo julli guddi boo ci gën a bari boo ci gën a yeex jeex mu misaal ko ci misaal muy wax ne وقال شيخنا الحكيم الثوري جزاء مولانا جزاء الخير حرمت أن أقوم بالليالي خمسة أشهر على التوالي من أجل ذنب واحد فضيلا فقال إني قد رأيت رجلا من الرجال وهو في البكاء فقلت في نفسي ذا مرائي hada li anna charra yadu abada li charr wala xëy na xëy in bada Sufyaan Sawri nee na suñu borom xañ na ma julli guddi ak yool bu mag bi ci nekk juróomi weer ci bàkkaar bu tuuti bàkkaar bu tuuti bi mooy dama gis kenn ci góor yàlla yi muy jooy di julli di jooy wala muy jàng alxuraan di jooy mën a wax ci sama xel rek nangu ma ko ci sama lamañ mën a kii nga day ngistal suñu borom daal di may jafeelal julli guddi ba ma am juróomi weer mënumaa julli guddi noonu la ko sëñ Tuubaa nekk leen boole itam ci kawe jooju nga xam ne duggul benn minute rek wala benn seconde boo xam ne romb na ko ci dundam te jëfu ca loo xam ne dana gërëm loo yàlla wala dana ko jay ëllëg wala dana xetal mbindeef ba tax mu ne fa daatun wa raaxatun lay yuusira shaxsan araada an yakuna muusira nooflaay ak néenal jamono du jël mukk koo xam ne namm naa am dara ëllëg moo duñu jàngal itte ju rëy ni muy barkeele dundub nit ak ni muy bari la yoolu ëllëg ak ni muy fóoti nit ci ba xolam set ak ni muy jegale nit ci yàlla ndax ci la ëpp yitte rek léegi mu raw la ci yàlla bu dal ne inna allaha yarzuqul ibaada bi qadri himmatihim suñu borom dana wërsëgal jaam ñi ci kam seen itte wërsëg nag ay xeet wërsëg la am na soxla maa wu ñu ne wërsëg ñaar la wi lay sàkku ak wi lay sàkku boo toogee doo ko am wi lay sàkku nag boo doon nelawit mu fekk si la waaye wërsëg ëpp na ñaar ëpp na ñett ëpp na ñeent wërsëg yu bari la am na wërsëg ci xeeti wërsëg yoo xam ne xel a koy joxe am ci yoo xam ne ak njàmbaar a koy joxe am yoo xam ne fulla a koy joxe am ci yoo xam ne melaw biir wu rafet a koy joxe ak wërsëg xam ne ab juddu rek a koy joxe wërsëg yooyu yëpp bu ci nekk la koy joxe rek ko mën a indi waaye leneen mënu koo indi wërsëg yooyu xam ne ittee koy indi mooy yu gën a màgg ci wërsëg yi gën cee am njëriñ ndax moo ci ëpp solo dem nañ ba xeeti jaamu yàlla yi sax ñu wax ne bi ci gën a metti ak bi ci bakkan gën a sib nga xam ne nit ki dafa am njàmbaaru not bakkanam moo ci ëpp tuyaaba moo ci gën moom nag itteem mënees su ko xalaat buñ bëggee xam itteem lañu seet rek li shaayir bi wax lahu himmamun laa muntaha li kibaariha wa himmatuhu wa himmatuhu suxra ajallu ila dahr nee na am na ay xeeti itte yu yoo xam ne li ca gën a ndawe rek amul fu mu yemee li ca gën a màgg nag moo gën a màgg jamono maanaam moo gën a gudd jamono gën koo yàgg gën koo rëy jamono day lu ko gën a lu ko sut am na ay xeeti jikko yoo xam ne xeeti itte yoo xam ne bu seen borom jublu woon ci montagne bi dal ko fi jëlee bu ñu yàggee jublu rek jëlee ko fi naka noonu ak ak wegoom noonu sëñ Moussa di ko waxee naan te jéegoom ya du jéegee te yoonu jàkkaam ca tempam ma la xalaate yoonu lislaam jéegoom ya du jéegee te yoonu jàkkaam sëñ Tuubaa du jéeg mukk jéegoom jëme ko ci lu dul lu yàlla bëgg wala lu yàlla nam lu yàlla santaane wala lu yàlla sant jaam ñi ngir màggal ko wala ngir tagg ko ba xam ko kon sobu bokk na ci xam ne mooy tax nit ki mat buñ ko nattee ci àndaar yu mat yu mat ya àndaar yu mat ya suñ koy mat suñ koy yëpp nga xam ne buñ ko ci nattee mu mat ko yooyu yëpp daf koy boole sàmm ci la sàmm من طاحك إذا شئت أن تحيا ودينك صالم وحظك موفور وعرضك سيئ لسانك لا تذكر ولا لسانك اشتغال لا تذكر به عورة امرئ فعندك عورات وللناس ألسنه فإن أبصرت عيناك عيبا فقل لها فلا تبصريها عين للناس أعينه من بوب دي دند سدينا مچ سبتر ري سدري تم wi sa lamiñ wi bu ci waxtaane ayib bi nit ndax am nga ay ayib te nit ñi am nañuy lamiñ waxtu ba sa bët yi xoolee ayib bi nit nee ko yow sama bët yi bul xool ayib ndax am naay ayib kat te nit ñi am nañuy bët xool bu boole ci cofeel bu mu sopp boromam ak yonent bi gën jaamati sopp ak nam أقيت إشق المحبة دفع أم الإشق أم أهل التصوف اللي واحد محبة كفي اللي بو داي فر شي خلق مبينيس من يب نقول يالا إشق نك داي دون كفي اللي بو دو منا من دو كمنا من دو منا من بن جل كبت تجبلوا جموم ولا جسلوا مجبوا جموم محبة شبابهم أي درجة أي درجة, أي درجة. wax xeetu cofeel yi nga xam ne ahlu tasawuf ci la ñu njëkk a jaar bala ñu àgg ci ëpp gis ngeen bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne kenn yónnee bu ko te ci leew xolam yëpp na màggug suñu borom gi fi mu dëkk fépp ak li ko wër kenn xamu fi yàlla kenn jaamu fi yàlla kenn wanewu fi yàlla nga xam ne bu doon tegtalu du gis lenn lu ko tegtal yàlla waaye bu leer boobu tax mu yëg màggug suñu borom bi ak ak nguuram bi ba mu mën mu muñ nit ñi daan dem ci xund muy wax xeer xiraa yóbbu yóbbal di fa toog weer wala weer ak lu topp ci xeetu jaamu yàlla ak di ko xalaat di def tafakkur tafakkur maanaam méditation loolu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wàccoon nit ñi di sax ci néeg ngir mën a xalaat boromam arab yi إن محمدا عشق ربه محمد الإشق مم بعد بيتي بكم اللي مو يتكيش أراب موي بجيلو جور الجيل وايا بنكو إنه تكسوس موي تكيل دو خامي دا سب دا بيو دو تولي نين لنا سب دا خامي منو تو توب تي جيسو لكو ولا جيسو لكو نشا بوك خامي كون نحب بنين دي كجا سوك تي عمي شوك دي خامي نسي توبا مطلنا مولم درجي محبة بنين تي شوك ba dugg ci ishq boobu ishq boobu nga xam ne mooy gën jaa kaway cofeelu jaam sopp gu mu sopp boromam nga xam ne li ko indi mooy xam gu ma ko xam nga xam ne kenn mënu la sopp loo xamul xam gi mu xam boromam ndax xam-xam bu bari bi nga xam ne moom la ko suñu borom jox ñu ko njëkk a xamee ci bu mu tàmbalee tere kuy suñu alquran ndax xam bu métti bi nga xam ne moom la xam alquran xam kumpa yi ak li ci suñu borom namm dem ba xam ne moom ci boppam fa ca xam-xamam yem xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafa ne wa maa yaalamu taawilahu illa allah suñu borom rek ci boppam moo xam taawil bi dëgg dëgg dëgg dëgg nga xam ne yonent yi ak li seen xam-xam yu bari bari fañ ca yem aarifuuna billahi li seen xam-xam bari bari fañ ca yem ñi nga xam ne ay ulama rek lañu ñu ngi jaar ci sharaa yi ak taawil yi ak tafasir yi waaye ñi nga xam ne nag am nañu maarifa maarifatu billahi ñoom dañuy dem ba xam loo xam ne nit ñi xamuñu ko ñu gis ne taxul mu jeex leneen ak sa kanamam ñu ragal naka wax li ñu xamoon ndax xamuñu na leneen yeneen i kumpa yu dem lënt mu ngi ci biir li ñu yaakaar ne xam nañ ko wala déet moo tax ñuy ragal firi alquran loolu moo tax ci baatu maaya boobu waxtaane nañ ko lu bari ak yi fi ànd suñu borom ànd gi ànd ak jàmm wax ko ay yoon ci alquran bi nga xamee ne waa gànnaar werante nañ ci dum ci dellu soor wax na waxtaan nañ ko lu bari bi ci waa gànnaar werante lu bari te bind ko nim leen ci dindee kumpa xamal na leen ne xam-xamam moom ci boppam kenn xamul fu mu yore ndax nee na nit képp koo xam ne àgg boo ci darajay mushahada fokk seytaane mën naa jax jaxal sa xol te ku seetaane mën a jax njaxal sa xol mën loo dégg alxuraan dégg jote waar dëgg dëgg mu xam la ne itam ne suñu borom ku xamul jëmmam jëla mel dëgg dëgg mënuloo xam ànd gi mu ànd ak jaam yi nan la ànd ga demee moo tax sëñ Moussa Ka di wax naa ñi xam yàlla ñi xam yónneen ca baawal ba tey seen jaarale fa mu jaar boroomam ndax yoon yi nga xam ne bi mu settantalee yoon yi nga xam ne ci la góor yàlla yi jaar ba àgg ci suñu borom mu gis yoon yëpp fas yéene sant yoon woo xam ne kenn mus cee jaar te kenn xamu ko woon mu xot yoon woo wale jaar ca moo tax mu ne ñi xam yàlla ak ñi xam yeneen ca baawoon ba tey kenn jaarewul fa mu jaar boromam xam-xamam bu yaatu bu xóot boobu nga xam ne xam na ko boromam moo tax mu xotti ci yoon woo xam ne kenn du ko ca xatal te kenn jiituwu ko ca te keneen du ca jaaraat bi nga xamee ne nag xeeti xam-xam yooyu fees na ca dell ngëmam ak foo xam ne mooy yemukaayu ngëm nga xam ne kasful isaa du ko yokk yàq yi mukk ak dogoom ak takkoom ba nga xam ne ak njàmbaaram nga xam ne ak wóoloom yàlla nga xam ne ak maandoom ak fegoom ak wattandikoom yu yëpp tax na xolam lu dul yàlla mënu cee dugg xolam sell sell xam ne mooy bi nga xamee ne ñu ngi fiy jóge nag war a jëm ci géej bi nga xam ne lépp loo xam ne jullit daawoon na ko sàkk ci digganteem ak boroomam amal naa ko ba mu mat sëkk nga xam ne kon mel ne ku raxas na bam ba mu set nga xam ne dafa war dégg léegi ñu yekkal ko mu fees moo ko defee mu maqamatul yaqin ni ngi toll nga xam ne jeexal na ko iman dara desiwu ko ci yaqin dara desiwu ko si maqamatul yaqin yëpp jeexal na ko nga xam ne melo yu rafet yëpp itam tërbiyee na boppam ba tarqiya ba yonente bi salaatu ndax bi nga xamee ne wax ne yaa xayra maaxi maxa junaaxi maal mazaay waxtu waxtu si bàyyi yow ngëm ci aji far ji nga xam ne far nga samay bàkkaar far nga sax sama caaxaan ak samay tax ba may xaleel xam ne kon moom ba muy gane lu yàlla baal la tàggoo woon lépp loo xam ne dina dox diggante jaam bi ak boromam nga xam ne kon lépp loo xam ne xajul ci wala bu duggee ci bët dana metti nekkul ci xolam digganteem ak boromam nga xam ne kon li ñuy wax àgguwaay àggana ci mu des nekk ngir ngërëmal boromam loo xam ne rek liggéeyal ko nag ba mu ko moo des ne kon li des léegi maqaama yi pa yees yëpp muy juróom-ñaar yi ko jaaree ci nufuus yi nafsul kaamila mu di jëmm joo xam ne xar ko aada li ñuy wax xar ko aada xotti baax la ci adduna di benn mu'jiza maanaam benn kéemaan ci kéemaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne suñu boroom leeral na goxi xol yépp ci aw meloom ak jëfam ci penku ak sowwu mu teg ca nag léegi farlu goo xam ne amul sonn amul tawat amul yokkat amul sàppi dara du ko sàppi nga xam ne ni mu meroon tey bu ëllëgee dafay yokk ba nga xam ne bu geesoo maqaam ba mu toll woon démb day tuut fa mu yemoon démb ak fa mu teewoon boromam démb ngir gën a xam bi mu gën a xam yàlla gën ko gën a xam tey mu seet fa mu ko tegoon démb mu rus teg ko bàkkaar ba di ko bal xam ne leeral na goxi xol yépp ci aw meloom ak jëfam ci penku ak sowu mu tek ca nag legi farlu go xamne amul sonn amul tawat amul yokat amul sàppi dara du ko sàppi xamne xam ne ni mu meloon tey bu ëllëgee dafay yokk ba nga xamne bu geeso maqaam moom tollu won dembu day tuub xamu yamon yemoon démb ak xamu mu borom boromam démb ngir gëna xam du mëna gëna xam yàlla tay gën gi ko gëna xam tay mu set fam ko tegon démb mu rus teg ko bàkkaar ba di ko baloo xam ne seeni bàkkaar lu mel noonu la demee mu mujj nekk koo xam ne mooy barkeb réew mi di barkeb dund gi ni cheikh ahmadul busiri waxee ne yumnul muhaymin fi l ardina waarisu xayril alamina bihi afaaqu tartasiqu li wax naan man lam yakun bi xabibil mustafa yasiqu fa innani bi xabibil murtada asiqu يمن المهيمن في الأرضين واثق وارث غير خير العالمين به الآفاق تتسق modi di barkab sunu borom nga xamni moy muhaymin ci kaw suuf waris khairul alamin moy aji tan ci ci bin ci binde fi te mooy yonente bi salaa wasallam nga xamne ci barkeem le binde yi di amé sunu wërsëg ni ni leen yàlla di wërsëgal ci afa ci mboolem gox yi nga xamne dal daal ci misaal daal nekkoon na ko xamne li ñu wax nagaratu zamani kenn ku néew nga xamne ku muy ku melni mom li muy ñëw ci jamono lu néew la xam ne taaru adduna la woon bi mu nu jàngalee nag mboolem xeeti na nit di sellale boppam ba bokk ñi yàlla ba ñu nangu ko ca xadra ba ndax xadratul xudsi kat benn dàkk boo ko amee ci sa xol doo fa dugg boo jubee béréb ba ñu bëgg la di ñu jàngal nag naka la ñuy selle nun sellal suñu bopp nga xam ne dañuy yell ci mën a toog ci béréb ba di dégg ndéey ya bokk ci nga xam secret li jangale lanu yare sunu bop lanu setle sunu xol ci jikko yep mu jàngal nu nak lanuy defa tafakkur moy li tubaab yi wax méditation xamal nu ne képp ku dul méditer képp ku dul wéet di sa xol xol bu deela xamal dersi ne munu jox dersi yu ama am solo la xamal nu ne tafakkur bobu moy dindi gumba xol شخل برام لا القرآن فلو ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا كيف كوحنا دوسنا كي تومب بومب كي أدنى كي سخل لنيو نيو بيوم القيامة من لا يدك فيه يعني دوم آدم نيار خاج لا خاج بو خمنا نيم لي بند أدنوه أدنوه لا يدير جرم أدنلو خاج بو خمنا جامو يالا لي بند تموي رو yàlla tamit salaam fi ma dafa wax ne déglu woo rek ni seytaane yi biiw ci xoli doomu aadama yi te fi mooy seen bànneex ak àdduna ak mer kon ñuy xool malakutu samawaati wal ardi yi ñu nag ñu ne alma u bihimmatihi yatiru xamal nañu nag ne itte moom bokk na ci gànnaay yi gën a am solo ci yu doom aadama yi war a rëbbe ak taxe ba am ko mu xamal ñu nu wakilu ci yàlla du wàññi te daf koy yokk ndax yonente bi salaa sallam dafa wax ne ala inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nafaxaatin ala fataarawu lahu suñu borom kat am na jamono yoo xam ne day tibb leeram di ko wesaare waaye ni ngeen fexe ba taatanu ko li nga xamee ne béréb yi dafa am yoo xam ne ñoo gën a ëpp rawxaane jaamu fa yàlla gën a ëpp tuyaaba ñaan fa mooy a nangu amee ci ko ci jëmm yi amee jamono yi noonu la amee it ci béréb yi noonu la amee itam ci li yi ci lu tax ñu ne man lajja wala ja képp koo xam ne kii góorgóorlu ko te bañ a bàyyi xam ne doo yokkat da nga mujj ubbi bunt yi képp koo xam ne wëndeelu nga di làmbatu itam da nga mujj daj képp koo xam ne itam dëgër nga dara mënu laa dàq da nga àgg fa nga jëm moo tax arab bi ne axlaq bi sawi an yaxda bi xaajatihi umud min almat umud min alqar lil abwaabi an yarija ذلك لن استسهلن صعب او ادرك المنى فمن قالت الامان الا بسابرين. ولنتفرلوا ak ak la sonn boo ko defee mooy tax ñu natt la ca àndaari mat ya mu am nag ci jamono yenn doomu aadama di toll ci diggante yoo xam ne lu dul fit ak njàmbaar ak farlu du ko tax a rëcc bu fekkente ne lenn manqué na ci yooyu li mu liggéeyoon li mu weesoon lépp mu ñàkk ko waxtu woo xamee ne nag matal na ba jàpp loola mboolem lu mu doon bëgg rek dana ko am yonent bi wa sallam wax na ne bi nga xamee ne Badar ko misaalo ci ay yeneen i conférence ñetti téeméer ñooñu dajeeg junni bi yonent bi sallallahu fa mu doon ñaane ne suñu boroom waxtu woo xamee kat diggante bi ñu toll kat mooy diggante bi gën a rëy ci lislaam ci la yàqu lislaam ci la fayam nekk ci la tàkkam ba faw itam nekk ndax kuréel bii waxtu woo xamee ne dee nañu ci xaral bi kat wala dàq nañ leen lislaam dootu taxaw dootuñu la jaamu ci kaw suuf te noonu sëñ tubaab bi nga xamee ne mu ngi julli ci géej gi diggante bu demee noonu la la toll woon diggante bi nga xam ne ci la yonente bi salaa sallam seet lu mu gën a bëgg nee na du éret xuratu ay ni ci salaat yi nga xam ne ñett yi mu wax ne bëgg na ko ci adduna waxtaane nañ ko ba tàyyi lu ci nekk lu ko waral ak lu tax julli nag nee na mooy li gën a sedd xolam julli mooy li nga xam ne mooy li li ubbi bunt yi nga xam ne mooy bunt yërmande suñu borom mooy ubbi bunt caxe boo xam ne dootu tëj mukk te doomu aadama bi day toll foo xam ne jafe-jafe bi nga xam ne julli rek moo mën a moo ko mën a jàppandi amul leneen lu ko mën a jàppandi gaa ñi nga xam ne dañoo xam yàlla bu boobaa seen xel yëpp ak seen xol yëpp day dellu ci julli rek julli bi nag bi nga xam ne yonente bi salaam toll na ci diggante boobu nga xam ne waxtu waa xam ne ahli badrin bu leen yéefar yi dañee rek l'islam fay sëñ Tuubaa bi nga xamee ne ni ko Moussa Ka waxee ne dogon ko nag dem bii wala nasaraan te kon billaahi ñëpp dem niiraal bu fekkoon ne demoon na ci géej gi te dellu siwul jullit dootu am ci réew mi tubaab bi dana dox diggante nit ñi ak lislaam ba weddi loo leen te duñu am preuve yu dëgër yoo xam ne dana tax ñu sax ci mooy li nga xam ne moom la Cheikh Moussa Ka wax diggante boobu nag nga xam ne mu ngi aji kon ci waxtu bi nga xam ne ne ñu ngi fas mu bañ a ànd ak njàpp ko ndax moom lu yàgg yàgg fukki junni bu buñ ko laaloo nit mënu la yàq njàppam waaye nag inama musrikuuna najasun dafa sellal boromam ba nga xam ne du nangoo julli mukk ci du njàpp mu bees la amee lu mu am amee am njàpp bu waxtu jotee balay kàbbar rek fokk mu jàppaat njàpp mu doy rek lay jullee mësu nañ ko ko wax mu ne buur wata boor lañ ko jox kenn du ko jox yàpp bu fanaan maanaam njàpp moo xam ne julli woon nga ca wala jàngoon nga ci alxuraan du taxawati ci kanamu yàlla da koy jàppee waxtu woo xam ne nag ne sobe la bu ko laalee faw mu dellu ci beneen njàppaat faw mu jàpp xam ne nag diggante bi mu toll mooy diggante bi nga xam ne ci la lislaam yi réew mi aju ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Moussa Ka waxe bi def ñi seeni pexe la ñu taxawal pexe yi nga xam ne xalaat nañu ba ràbb ba tëral plan bi nga xam ne ci seen xel mooy bi gën a jub moo di fexe ba faat loo ko waxtu wala yàq koo julli loo loolu nag nañ koy mën a defee kan du julli mukk te àndul ak njàpp mu bees njàpp mu bees ni ana lan la ñu yaakaar moo ko mën a moom ca loola la ñu dal doon taxaw rek nag bu ñu seetee ci diggante boobu ci la ñu seetee ne sëñ Tuubaa jamono boobu fekk na ak tànnoom seeni ci biir tànn ko suñu borom gisatul lu muy tànn wala lu ko gën a lenn jugalal suñu borom rek la seet جسد الأكان أنم فما اختياره في اختيار الله تبارك وتعالى لب لمن أدنى أدنى ميل نيح ميل رفض ميل بد ميل رغل دين في خلم بيد تقول لول من من الأمثل دين في خلم سام جموك سامي تام سامون تك أكتر سبرم تبارك وتعالى تياونا في خلم ريد يخلي مملس سبرم ريد جموك يد جسد الدار جسد الحي gisatul géej gi gisatul xàmmeetul ndox ak safara xàmmeetul jant ak weer xàmmeetul guddeeg bëccëg li nga xam ne moo taxaw ci kanamam mooy waxtu yi ndax waxtu bu toll foofu waxtu bu jotee day ñëw ne ko jot naa julli ba ni nga xamee ne nag noonu lay gise biir bi ak bitti bi ngir sell boo xam ne xolam sell na ko ba dara amul takk ndawar dara amul takk ndawar ci xolam lu dul yàlla noonu nga xam ne sellam di xol bi sell taxoon na mu ne afawtu an allah bàyyi turam ba nga xam ne jàppalatul kenn lenn ki koy defal li gën a naqari ak li gën a metti ak ki koy defal li gën a baax ñoo yemoo fu xolam mu ngi seet rek li yàlla bëgg diggante boobu nga xam ne toll na foofu màggu suñu borom gi fees na xolam gisatul dara leneen nekkati si te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne su fekkente ne jaam ragalul dara lu dul yàlla suñu borom du xam lenn xiir ci kawam abdoulaye ibnu abbas bi nga xamee ne loolu xista la boo xam ne waxtaane nañ ko nangam yoon ci conférence taxalawul ñu dellu si day la woon boo xam ne tax na nit ñi dem taxaw bañ a tee dem ndax gaynde daa ngi ci yoon wi ci seen këram bi Abdoulaye ibn Abbas ñu ngi jàpp ci nopp gaynde gi wamat ko ba mu sori mu weq ko mu dem ñu ne ko ndax yow da ngay yonent gannaaw Muhammad mu ne déedéet dama digg sallallahu alayhi wa sallam naan euh, doomu aadama bu borom du xiir dara ci kawam sëñ Tuubaa xam na ne géej gi suñu borom du ko xiir ci kawam ñu ne ñu koo labal ndax ragalul lu dul yalla xolam bi dara lu dul yàlla nekku ci xolam bi dara lu dul julli waxtu yàlla nekku ci amul dara loo xam ne lii gisati na ko lu dul loolu rek ndax foofu nga xamee ne suñ borom xamal na ko ne ko da ngay liggéey te da ngay dellu si tul loolu li mu seetlu léegi moo di waxtu yu jot rek ngërëmal suñ borom li muy wut te bëggul dara xañ ko ragal gi mu ragal suñ borom ba ragalutul lenn bëgg gi mu bëgg suñ borom ba bëggatul lenn yooyu yëpp taxaw ak màggaayu waxtu wi ak màggaayu suñu borom tabaraka wa taala mu daal di def la muy def la cay xaw yoonam nekku ca seetu ko bu ko leeroon ne itam li suñu borom di def ci beneen jaam beneen bi muy doon it la ciy def it dana def ndax ndax ma nga tàmbalee ca bi nga xamee ne nee ñu conseil privé bi woo nañu ko mu dikkee ci ni ko wolof yi di nettalee xamu na mu demee bi ñu kayit si signaloo leen ko ne kenn ko nekk te ñun jàppoon da ngay wane ne amul benn buur budul borom ndax signal bi nga ko wane mu ne indi ma indil xalima gu mësul bind fen xalima gu bindagul fen mooy plume boo xam ne mësul a bind ñu indi ko bu ñu ko indee mu daal di bind ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maa ngi seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu bu ñu a jaamu budul yàlla boo bëgg a xamee noonu mu seedee woon ne amul benn buur bu ñu war a jaamu budul yàlla yàlla yi nga xam ne moo teewal ci xolam bi nga xamee ne teewal nañ ko ci seen kanam te mu xam ne dagal nañ seen i pexe te moom rek ko tax moom rek leen tax a jóg moo seen pexe yooyu ak géej gi ak safara wu doon tàkk lay mën a képp ndax suñu borom li suñu borom wax tabaraka taala yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa daa ina ilahi bi idnihi li ñu koy faral di wax rek ne wa daa ina ilahi bari na kuy woote jëme ci yàlla bari na waaye bi ismihi mooy la jafe ki nga xam ne suñu borom ci boppam moo ko digal jox ko ndigalal woo ca kanam ba mu ko ne rabbi asxaabaka bil himmati wala tarabbihi bi dërsi sa ñi ànd ak yow na nga leen yare li ahlu tasawuf di wax al himmatu waaye bu leen yaree jàngale teewul moom nee na xam na ne jàngale kat farata la ndax jàngale l'islam bi moo tax ba mu jàngalee tulit dafa samp ay daara ñuy jàngale li nga xam ne noonu la ñu war a jàngalee di bind ci ay téere lépp loo xam ne war nañ koo xam ci islam mu bind téere bind ci tawhid bind ci tasawuf bind ci fiq bind ci teggin bind ci yar bind ci lépp teewul nag muy yar saxaabaan yi maanaam ñu ànd ak moom bil himma di ko topp muy jël garab bi di ko seet waxtu waree yokk waxtu waree wàññi ak waxtu waree def leneen noonu la toppee murid bi nga xam ne ku agsi day xam lan mooy sa jàngoro rëy la wala bëgg daraja la wala bëgg alal la wala kañaan la wala tayel la wala lu mu mëna doon wala bëgg ñam la muy seet garab bi nga xam ne moo lay faj loolu mooy itte noonu la nga xam ne noonu la sëñ doon ya murid yi di tërbiya di tarqiya bu ko nee rabbi asxaabaka bi himmat wala turabbihim bi dërsi booba jógee ko fi boo boola la ko xamal ne wa da'in lillahi bi iznihi ci la bokk day woote jëme ci yàlla waaye ci ndigalal yàlla ndigal nag li mu wutal lu ndigal ndax lépp turu yàlla wala lépp lu ñu santaane ci alquran farata la waaye bu fekkente ne al innul am mooy ndigal li nga xam ne suñu borom daf ko digal jullit ñëpp ñetti ñi ngay tuddee yàlla fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfuruni ñi nga xam ne noonu la suñu borom diglee ngay sant suñu borom tabaraka wa taala di ko màggal di ko jaamu di julli ci yonentam bi bu fekkonte ne yow mi nga xam dañ koy jëlee ci alquran wala nga jàng ko loo ci def bu fekkee ne ki nga xam ne am na ci al ilmi xaas bu defee benn yow nga def junni moo la ëppale wala ngeen yem la bi isnihi jooju nag mooy kon li gën a am doole wa daa leen ilaahi bi isnihi fekk na bi mu daataan dem ci géej gi suñu borom jagleel ko loolu de loolu moo tax ñu ne ko fas bi kama sabar ulul azmi noonu ko sëñ Moussa ko waxee fas bi kama sabar ulul azmi la ñu faxaa te bante bàmbaay mbërëmu li tax suñu borom daal di ko kenn dul ulul azmi minar rusul ulul a foor ci yonente yi booba la ko xamal nga ngir yu mag ngir nga dékku yu mag ngir nga xacc li mbindeef yu bari ngir nga jëf jëf ci kaw kaana maxluqan lil julla maanaam lil umuri al izam suñu borom daf ko bind ngir mbir yu mag ngir mu war a yenu yan bu rëy ngir mu war a jëf mooy leeral kaw suuf si ak ñi ci nekk di xettali mbindeef yi moo tax mu ne ko fas bi kama sabara ulul azmi nga xam ne booba dafa engagé ba moomatul dara jox na boppam lépp suñ borom li wax ne wal juudu bi nafsi aqsa gaayatil juudi tabe ba yëkkati sa bopp tabe ko joxe ko mooy dayo mooy gën jaakale dayoy tabe joxe ga ba joxe sa bopp joxe nga ba joxe sa lépp ba yëkkati sa jëmm joxe wal juudu bi nafsi ak saa xaayatil juuli booba àggoon na foofu loolu moo taxoon kon suñu borom ci boppam gàttandu ko tabaraka wa taala ndax suñu borom dafa wax ci alxadisul qudsi bi yonent bi salaa sallam nettali alxadisul qudsi mooy la xam ne suñu borom dafa koo sànni ci xolu yonent bi muy wax yàlla te na mun muy alquran nga xam ne yonent bi salaa sallam maanaam muy wax message bi maanaam la ko suñu borom xamal mu wax ko ci waxinu boppam bu ko alquran alquran moom la ko suñu borom waxe tabaraka wa taala na mu ko waxee la koy jote jibril la koy waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam du ci yokk ci wàññi xaraf yonent bi sallallahu alayhi wasallam itam du ci ci wàññi xaraf nañ ko ko waxee woon rek ba ci juróom-ñaari jàngee nii juróom-ñaari riwaaya yi ba mu jeex loolu mooy li ñuy wax texte révélé wuti naag texte inspiré alquran moom loo tax muy bindin wi li ñuy wax garantie bindin wi ñu ko bindee bu njëkk wañ ko bindee lu ci nekk am na lu ko waral kenn waru caa yokk kenn waru caa wàññee noonu nag la wuute kon alxadisul qudsi alxadisul qudsi ci darajaam moo tolloog yeneen wax yi ñu daan wax yeneen yonent yi nga xam ne ñoo koy wax ci seen lami bopp ak nañ ko xamee ak langue ba ñu dégg noonu mu waxee ne wax woo xamee ne moom suñu borom sama jaam dox na jëm si ci man ma waaxu ci maanaa jëm si ci moom bu waaxoo jëm ci man ma ñukk jëm ci moom dafay wane ne suñu borom wax woo xam ne jaam bi am na yéene ji mat ci jëm si ci moom rek daf koy gàttandu maanaam daf koy yombalal yoon wi daf koy gën ci boppam ngir mu gën a ndax ne yonent bi moo ko wax nee na suñu borom ni muy déggee ci tuubu jaamam moo raw ni aji mar ji ñu jox ko ndox mu sedd mu war koo naan noonu mu neex ci moom ngir yéen ma di ji bari ji nga xam ne boo doxee benn jéego jëm ci moom mu dox ñaari jéego ñetti jéego ñeenti jéego jëm ci yow moom suñu borom tabaraka wa taala kon jëmm gi nga xam ne xam ne léppam jox boromam suñu borom moom léppam xañul fenn ndax tuuti yàlla moo xaj ci jaamam waaye booba li ko taxawoon a jóg ba tey ni ñu ko waxee woon rek nee moom suñu comme misaal na ko misaal yooyu jaar nañ ci ay yoon di soxla ñu ciy jaar li ñu koy gàttal rek moo di xettali mbindee fi moo ko taxoon a jóg dafa doon xare ngir nit ñi am jàmm dafa doon xare ngir nit ñi am jàmm ndax silmu la def bañ al istislaam al islaam mooy jébbale sa bopp ngir yaakaar ne kon da nga am jàmm waaye xeex ba xam ne mën a nga dara nga jàmmoo moo ëpp doole istislaam jébbale sa bopp ngir bëgg a am jàmm waaye silmu itam li ko ëpp doole mooy nga xeex ba nag ba xam ne te mënul la dara li nga doon bañ jëm ba tey yaa ngi koy bañ la nga doon def te neexul ba tey yaa koy def te mënul la koo tee def mu bàyyi la ca loolu moo di xare ba dàq mooy xeex ba not moom nag mu fab gànnaar yi gën a mat gànnaar yi gën a yomb xeex neex a xeexe moom la doon xeexe mooy laa taqnatu min rahmatillah lu metti metti sa yaakaar yàlla sa njàmbaar sa ngëm day gën a yokk rek lu mbir rëy rëy daf koo sax dolli ak gëm du sukkandikoo ci mam bu kudul boromam waxe ndax nit ki nga xam ne dafa def istislaam kat léegi moom dañu dal di xam ne bokkaale na ca kaw def istislaam ci moom lépp lu mu am mu am ko fépp fu mu dugg mu dugg ko lépp lu mu tooñ tooñ na ko yàlla nag allahu anjaxu ma talabta bihi lépp looy sàkku yàllaa ko am bu fekkee ne wacc nga lépp jublu ci yàlla yaa nga jëm fa nga xam ne la ñuy sàkku fa la jëme tam jox fat sa bopp jox yàlla boobu yëpp ñu waxoon moo tax saayir bi ne Muusa wa Ibrahimu lamma sallama salima min al ixraaqi wal ixraaqi Muusa ak Ibrahima ba ñu fabee seen bopp jox seen borom ba dootuñu xalaat dootuñu settantal dootuñu tëral ay plan dootuñu seet li leen tax a li leen tax a mucc wala dara wala yenn pexe Muusa mucc ndax bi mu bàyyee boppam ak borom suñu borom daf ko ne dóoralet bi ci géej gi ndax booba siraw naa ngi ci gannaawam géej gaa ngi ci mu jaar waaye bi nga xamee ne fala masra jamaali qaala ashaabu Muusaa innaa la mudrakuuna ñi mu àndaloon dañu ko ñun kat siraw na dana ñu jot moo armée yi mu ne kallaa inna maa rabbii sayahdini wala ne déedéet maa ngi ànd ak sama borom te dana ma jaarale yoonu mucc yoonu jub nga xam ne bon suñu borom rek la gis noonu mu joxe bopp boromam suñu borom musal na ko ci lap Ibrahima itam waxtu ba nga xam ko ca catapulte bi bañ bañ ko defee ca mbaq ga bañ ko sànni mu jëm nga xam ne safara yi ngenaaw lu dox digganteem ak asamaan daanu ca di jibril feeñoo ko dogale ko ne ko ñaanal mu ne ko déedéet suñu borom xam ne sama mbir mu ko ndax ma safara mu ne ko suñu borom ko digal wala yow yaa am sa yërmande bopp mu ne sama yërmande bopp mu ko bàyyi naa borom xam ne ma te doy na ma te xam ne li ma nekkee jox googee mu jox boromam boppam bàyyi ko boppam moom it loola musal na ko ci yàq moo tax mu ne Moussa ak Ibrahima ba ñu joxee seen mbir seen borom musal na Moussa ci lap musal Ibrahima ci lakk kooku nga xam ne moo musaloon Moussa ci lap musal Ibrahima ci lakk moo musal ci Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu ci lap ci géej ak ci lu dul géej كان موسى عليه الصلاة والسلام في حرب سن برام إلى حرم نبيجي في أحمد بن رضي الله تعالى عنه في حرب سن برام إلى كان يوانا جرم سيكو جيد جلسي بسيط لن يجي سن برام جلسي جلسي لا دفن دي سفاها من يتن موسى جلسي بالمام سكنين دو تفا جلسي وقال نالي جس ولا يرم دلئ أبتش سنكو دفن دي dana ëpp ca nañ ko defee dana ëpp ca ka ko def dana ëpp itam ca jamono yi ñu ko def dana ëpp itam ca circonstance maanaam ci juróom yi nga xam ne moo xew ba ñu jëf ko dañu wax ne Seydina Ali radiallahu taala anhu bi yonente bi salaa sallam rañaane Makka jëm Madina te mu sàngoo mbugg yonente bi salaa sallam tëdd ci lalam ba nga xam ne ku ko gis defe ne yonente bi salaa sallam fekk booba arabi tan nañ ci giir bu nek fonkal mo xamne jox nañ ko jaay ci gëna ñëw ni leen ngeen tim ko doore ndo ko tan ko ci ni bok ku ñu gar ku ci nek yaa ngi bok ci benen qabila manam geneen giir arab bu ko defé banu hasim duñ mëna a attaqué loo jiiri arab yëpp bu ko defé dañuy sa laaj de ñu jox leen de ali nga xamne kon bobu moom it wal yudu bi nafsi aqsa hayatu jid joxe bopam ci yoonu yàlla ak abou bakar bi nga xamne itam ci xuntuma taxna Abubakar ci ñaari xew-xew yii bi mu joxee bi mu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xunt ak ci xarmbur li dëkk neemu ci la rawe góor ñëpp Ali noonu ci bi nga xamee ne jox na boppam ci place yonente bi ngir lu mën a dal yonente bi lu ko naroon a dal dal ko kon jëf li tax mi ne saxaaba yi kenn mënu leen a jot ci jëf mën nañ leen a jot ci daraja ndax daraja moom ci nameelu yàlla rek ku ko neex mu yëkkati la ba teg la ci maqaam mu ko neex moom mi ngi aju yàlla ak coobareem rek waaye jëf ñu ne dañoo jëf ci jamono joo xam ne ku bokkul ak ñoom rek jëfe woo ca ak nañu jëfe woon itam keneen mënu naa jëfe loolu moo tax ma ne kon jëf dana am valeur ci circonstance yi ñu ko jëfe ak jamono yi ñu ko jëfe ak fañ ko jëfe jëf ci boppam di jëf di gën a rëy mu di julli ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na julli moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi mais jaam fu mu gën a jege boromam mooy wax fu mu këppee jëfam ci suuf di julli nga ne kon jëf di gën a mu defe ko feneen fu ko fu ko keneen mënu la defee def ko ci jamono yoo xam ne kenn mënu ko faa defee def ko jëfin woo xam ne keneen dootu ko fa def buñ ko seetee lu doy doy waar lay doon tànn julli kon ci circonstance yooyu ci jamono yooyu sëñ Tuubaa xiroon na ci julli kër goo xam ne daanaka fu mu toll daan julli buñ dindee géej gi teg fee julli na ba tàyyi foo xam ne kenn mosu faa julli dul julli foo xam ne ku fa ku fa kàbbaree sa julli du àgg sopp boobu mu sopp julli ndax ni ma waxoon ne yàlla di saa sam nee na àllarwaaxu junudun mu jannada ما تعارف منها تآلفت وما تناكر من وما وما تناكر منها اختلفت او كما قال عليه الصلاه والسلام ñu waxoon am na beneen conférence bu ma ko waxoon ci julli ñaari rakkaay xam-xamu munasaba maanaam xeetwante ruu yi ca yow ma alas la suñu borom bindoon ruu yi xeetwante nga xam ne dañuy xëccante muy gën a sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yi gën a xeet ak moom mooy yi mu gën a xëcc ñu jëm si tuba yi gën a bari dañuy niroog moom lu ñu bëgg niroog ñoom lu ñu jëf niroog ñoom niroog moom lu ñu bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee ne xobbitu min duniyaakum hadihi kama qaala sidna ali dara na ñu nekk di xadis ci lu dul alfaas bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee woon seen adduna ji ñett lañ ma ci bëgg loo misaaloon naa léegi lu ci nekk lu tax ak na mu demee ak la ko waral benn bi moo di li koli benn bi moo di ak misaal faam mu ne nag waaye nag wala ila qurratu ay ni fi sirati sama seddu li arab wax seddu bët maanaam sama seddu xol dëgg li ma neex dëgg dëgg dëgg moom ñu ngi ko def ci julli yu bëgg gi mu bëgg boromam ak xam bi mu ko xam waxtu kàbbaree nga xam ne mu ngi toll ci béréb yoo xam ne ca la gën a jege borom ak li mu koy jege lépp lépp lépp nga xam ne day àgg ca xadara ba nga xam ne al xadaratu xadaratu bëstin boo fa àggee dootoo xam dara dara dara dara xam ngeen ne teewlu si julli ci boppam lu doy waar la teewlu si julli bu fekkee ne loo ragal ci sa kanam boo amul yaqin boo àggul ci xaqul yaqin doo mën a jox xaqu julli ci teewlu na mu waree fekkee ne lu bëgg wala lu rafet mu ngi ci sa kanam doo mën a jox teewlu julli xaqam bu fekkee ne mbooloo mu bari wala wax ju bari wala yëngu yu bari ñu ngi sa kanam dana jafe nga jox julli xaqam ci teewlu ndax kii jox julli xaqam ci teewlu dara du nekk ci xolam du ay noppam dootu dégg leneen xelam dootu xalaat leneen ñi nga xam ne noonu la ne ñun day lu bon duñ ko xool ci suñuy bët duñ ko déglu suñuy nopp duñ ko jëf ci suñuy loxo duñ ko xalaat ci suñu xel teg ca ba ne ci lu moo ci boolewul jot bi amul jot ndax nekk ci boromam rek waaye sell gu mat googu nga xam ne lépp ba ma ko sell mu donn ko ci yonente bi salaa sallam ba niru ko ruuxam googu donn niru sopp ruuxu yonente bi salaa sallam maa ta arafa min ha qad alafat nga xam ne dañuy miinante tax fu mu jaaroon mu niral ko na mu doxale woon mu niral ko am na xisa yu bari yoo xam ne bu ko waxee ngeen di gis ni fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fa toll nu mu waxe woon ak ni mu ñëroog moom nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay melo yi tax mu gën a mag bu ko seetee ci njàmbaar rek moo raw ñëpp xare bi lu bu ma xam gën a métti ba nga xam ne yéefar yi wër nañu leen ndomb sidna ali nee na dañ daan làqu ci moom xam ngeen ne yow ma xoneen bi nga xamee ne xaju fii te dafa bokkul ak mawdu bi waaye fii toll na ci goo xam ne صحابي ولي ورد من جناو يعجبتكم كثركم فرمت قليل أنتم شيئين وداخل عليكم ضد النار أخبر ثم وليتم مدبرين ممركة تحول أن النبي لا تزد خمنا الدرم منك وتزل فإنتو بايد خمنا الدرم منك وتزل جلي بوغو مدن جلي شكو جد جلي بوغو مدن جلي شكو جد لنا خمنا نوان نعم لا منك تياولو يشبلي بوغو خمنا بتم تجول شكو جلي جلي جلي teewlu gën a xam ne noonu la mën a teewloo teewlu ci gëmuy teewlu ci géej gi moo ko raw ndax circonstance xam na ne julli bi ci géej gi moo ëpp maqaama ndax jëf na mu gën a néewe waaye di nga xam ne dafa mosoon ne giñ ne day jëf jëf joo xam ne ci diine du ko bokk kenn waxtu mu koy jëf adduna bépp buñu leen seetee keneen du ko ci jëf mu seet seet xamuñ ban jëf lay doon ndax lu mu mën a def bu dee julli bu dee koor bu dee sarxe bu dee jàngaat lu mu mën a doon mën na am ci sax ci suuf yi am na koo xam ne kii ma ngi koy def te yëgu ko biñ jaaxlee ba dem fekk ci jamono Cheikh Abdou Qadir Jilal bi ñu ko ko waxee mu ne ah nga dem ca Kaaba ga di ko wër rek na xool ba nga xam ne kenn nekkul di wër mu wër nga xam ne loolu dong la mën a jëf te du ko bokkandoo kenn jëf joo xam ne doomu aadama bi ñu koy jëf te bokkandu ko woo ko kenn ci kaw suuf si mooy ji gën a màgg si jëf yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan jëf jëf joo xam ne du ko bokk ak kenn te am na ci xeetu jaamu yàlla yoo xam ne kenn waru ko caa fekk ni mu daan tere saxaaba yi ñu def wisaal maanaam woor ba ngoon jot nga bañ a dog ba xëdd di jot nga continuer wooraat bis ba ca tegu tere nañ ko bépp jul bu mu doon burub yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko daan def war julli yow yor nga xam ne mu ngi mel ni farata yu bari sax nga xam ne daf ko jagoo maqaama mu yëkkati ko moom moo tax ñi nga xam ne noonu la tiime nit ñi ci maqaam mu tiime leen koy ci jëf ba jëf loo xam ne keneen du ko jëf sëñ Tuubaa radiallahu taala anhu moom itam noonu nga xam ne noonu la tiime woon bindeef yi mu àgg si jëf jëf joo xam ne du ba nga koy jëf keneen nekkul di ko jëfandoo moom waaye keneen daf ko du gannaawam keneen daf ko woon tam di ko jiitu ci li ñu xam mu jànn da munaasaba boobu ñuy wax maanaam ci xeetu askanoo amana conférence boo xam ne waxoon nañ ci lu bari ndax xam xam fànn boppam la laaroon nañ ci tuuti ci ñaar rakkaay ndaw yi génn ko nañ ca tuuti ba tey yaatu ñu ceeb ndax ba tey bu ci nekk day fekk bokkul ak sujet bi ñu wax rek bu leen ñëwé dañu daal mu ñi nga xam ne ba muuta soppee yet wa muy jaan ba mu sànnee yet wa muy jaan ñoo ñoo gëm ba saamir yi tabaxee yëpp or wi ci bu ca suuf si nga xam ne ca mooy fasu malaayika mi taxawoon si nga xam ne suuf si day dund ndax xam ne ci la fas yi taxawoon di dund mu ci bonte ba mu tabaxee yëpp doog boo doog yi ba ca di nañ ñi di dox mu ni ñi nga xam ne ba Moussa soppee woon yet wa jaan la ñu tuub ndax kéemaan boobu ñooñu bi famille yi tabaxee yëkk wi ñu jaamu ñu lañu ko jaamu kon ngëm gi gën a dëgër mooy ngëm gi taxaw ci xel ak seetantal ak xalaat ak jàng ba xam li ngay def nga xam ne kon ulama yi ñoom ci seetantal foofu la seen teewlu tole nga xam ne julli gi rek ñaar rakka mën nañ ko julli xamee ci ci xeeti xam-xam loo xam ne mënul nañoo jàng fukki at duñ ko xam mu des teewlu aarifoona billahi yi muy teewlu gi gën a foor teewlu aarifoona billahi yi mooy bi gën a jafe ndax day boole teewlu day boole teew teew teewlu ulama wal aamiloona yooyu ba noppi ak teewlu siddiqoona yi nga xam ne ñooy majaas yi day boole dañuy boole yooyu yëpp. nga xam ne kon saxaaba yi nekk nañ ci ñu bari ñoo xam ne waxtu wu ñu taxawee di julli boo baxalee ndax sotti ko ci seen kaw duñ ko yëg duñ yëg tàngaayu ndox mi nga xam ne moom la leen sotti ak ki nga xam ne dafa tànkoom dafa doon metti ba ñu war koo dagg te doom ji ne booba xam nga xamuñu anesthésie doom ji ne bu ngeen bàyyee ba muy julli daañu ko mën a cor dana daanu waaye du yëg métit bi ndax du yëgati boxte waxtu wu taxawee yonte yàlla ibrahima alayhi salaatu wasalaam daan ko daan lu mat kilomètre wala ñaari kilomètre ni dënn bi baxee buy julli ndax ragal gi mu ragal yàlla xam gi mu ko xam xam nga kon ñett ñeenti xeeti teewlu julli yooyu lenn lu ci manqué rek sëñ Tuubaa doo ci jàppe boppam ne àgg na ci yaqin ndax tubaab bi ci boppam ak géej gi ak safara la yemale sayidina ali nee na law samadat zaratu min alxaq amaama jabalin min albatil la azalathu benn pepp zarra ci alxaq lu ñuy wax dëgg li ñu tuddee dëgg ci tasawuf bu di ci suñ borom benn pepp zarra ba ca gën a néew buñ ko tegoon ci kaw doj bi gën a dëgër montagne bi gën a wow mu dindi ko te kon xaq xaqul yaqin ci loolu bi nekkoon ci sëñ Touba moo ëpp doole géej gi ëpp doole bato bi ëpp doole der bi ëpp doole leneen bu mën a doon لو سمدت ذرة من الحق أمام جبل من الباطل لا أزالته kon alxaq mooy dëgg wala fi dañuy wax ne doole mën dëgg amoon na asgarante ñi naan xakay dëgg mën doole daal di joxe ay misaal dina dëgg mën doole ñi ne leen déedéet doole mën dëgg de moom lañ mën a wax ñii ne xakay ndax ah dëgg bu ko doolee mënul woon ñenn ñi joxe misaal ne lu tax Seydina Xuseynu waroon a nekk xalifa doole tax ba nekku ko naa ñoo ngi juum nañu ndax misaal mi ngeen jël jubul Seydina moo war a nekk xalifa te rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa ne alxilaafatu baadi arbauna sana te mu ngi yem ci bàyyam Seydina Ali ñaareel bi Seydina Xuseynu radiallahu taala anhu bi ñu ko reyee bi ñu daggee bopp bi bi ñu ko indee def ko ci بن تبلو تكوسي كنمو يزيد ابن معاوية نيني نعم دفنة لقد أتي هذا من قبل فقهه كأنه لم يقرأ قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير دفنة لك جامل اللي سنبرم وحنا يوم مم نقول يوم سنبرم وحكو دعني يجح نقول كل صوب دعني ترى كل صوب بيتر دعني كل صوب بيجي نقول بيجي كل صوب واي وكل نه دعني يجح نقول كي جل waxul ne da ngay jox nguur ki gën ki gën a jege yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi jógee ñeent ñi nga xam ne nekk nañu xalifa ñëpp ki ki ku ko ci gën a sori ci askan moo njëkk a nekk xalifa ba mu fi jógee gannaaw moom ka ko ci gën a sori fi nekk xalifa ba mu ak ci Alioune mi ko gën a jege te moo ko mucc moo ci mujj te Alioune te rek ku gën a jege yonent baa ngi foon mu di Abbas te Abbas mësul nekk xalifa kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom li tax mu bàyyi woon noonu xilaafa gi xam na ko julit ñi ummati daal dañu ala dalalatin waaye nag boobu argument waaye li tax li ñu ñaari niveau la ñu naan doolee man dëgg dañuy gis ne ñaar dañuy layoo kii am dëgg ba noppi kii am xaalis wala mu am ñu ànd ak moom ñu yeyal ko jox ko dëgg loolu rek la ñuy wax ne doolee man dëgg maanaam loolu mooy niveau bi nga xam ne xale yu tuuti yeeg ñi jàngul ak ñëpp foofu la seen niveau boobu la waaye ñi naan dëgg mën doole si niveau bu gën a kawe boobu moo di ne dëgg dara mun koo randal te doole dana randu dana seey dana dee dana dana dana jeex dana yem te dëgg moom bu adduna bépp bu ñu wàccoon dëgg ci dem toppatale dëgg moom du leen mukk ba ba saa di dëgg mooy dëgg rek dara mun koo randal loolu lañ jublu ci dëgg mën doole kay waaye ñu ci nekk la ñu wax maanaa wu na alquran dafa ne wa ardullahi waasiatun innama yuwaffa saabirun ajrahum bi xayri xisaabin wa ardullahi waasiatun moom pour ànd naa si la jullit képp ko xam ni kii fii mënuloo fee doxal sa diine na mu ware nga dem fee képp koo xam ne mënuloo jullee fii nga dem jullee ji fee ndax suuf sépp defal nañ ma ko mu di jullikaay la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye géej gépp defal nañ ko mu di jullikaay waaye ngir lan du ngir ñëpp de xanaa ngir ñu ne sëñ Tuubaa mu amee ni ko waxee woon rek ne وصبرك فاق صبر الناس حتى صبرت به الى اعلى المقام ما انت فوق واخون يو سنت با سمون جي كان موجب نيت من مني بسم بروم جي كتي لاشي درجه جي جو خامي موي جين جاكو درجه يي وي وصبرك فاق صبر الناس حتى صبرت به الى اعلى المقام صبرنا بنا ان الله مع الصابرين سنت با يم غناو يو وون موي دي ندي مون سي اي جيكوم ييب كر لين سي غا خامي رك بودون لول رك مو داي tudd nañu ñeent yoo xam ne lenn lu ci nekk rek doyoon na sëkk pour ngir mën a julli ci kaw géej gi te dana teewlu teewlu gi gën a mat ci teewlu yi muñ boobu nag inama yoo fa sabiroon ak yaram bi xayri xisaabin ndax muñ gi nga xam ne moom la muñ dafa am lu ko gën a difi ba muñam kawe muñu nit ñi moo di xam gi mu xam suñu boromam xam gi mu xam boromam xam asmaa yi ndax secret yi tur yàlla yi asmaa yi ndax suñu borom sifaat yi ak asma ak zaat yi benn bu ci nekk ci jaam ñi dafa am ay askanante yu ñuy ak kenn ku ci nekk fu nga ca ak sa xeeti xam-xam ak sa xeeti may melo yooyu yëpp nag yi suñu borom melo wa tabaraka day feeñ ci jaam bu ko jaamu ba àgg ci fanaa nga xam ne jeex nga ci suñu borom da ngay am ci meloom yooyu ay meloom moy fa ataaka hayat min hayatihi daf lay jox ak dund ci dundam ji sëñ touba ne dam hayati li hayati allah allah dakhil al jinan allah wa rafatu min rafatihi wala ilma min ilmihi wa kull shay min hadhihi al ashyaa التي هي ممدوحة والتي تليق به أبرزها صفة من نفسه yooyu yëpp benn bu ci nekk nga xam ne leer la ci xeeti leeri suñu borom yi suñu borom tabaraka wa taala dafa sant jaam ñi ñu melawoo merom yëpp lu ci dul kibriya rëy motax ñu naan ah ku naan suñu borom jox na ko kun nax la boppam dañoo xamul lu ñu wax kun ji suñu borom amee niroowul ak kun ji doom aadama amee ji muy dox jox doom aadama ndax xayaatu dund gi suñu borom di dund niroowul ak dundu doom aadama gi mele suñu borom yëpp bu ñu nee sami on basir suñu borom aji dégg la doom aadama day dégg basirun aji gis la doom aadama day gis bu ñu nee itam aji tabe la doom aadama day tabe melo wu melo woon doomu aadama melo na ko waaye nag melo duñu benn moo tax kun itam bu jaam sun borom jox na ko kun te la wax mu xam ko ñako xamul buñ ko wedde weesu na réer weesu na sit wu reey ak ndox la ndax nit ki nga xam li mu xam ba noppi xam li muy wax soog a mën a weddi li muy wax waaye fii àgguloo fa àgg mosuloo la mu mos ndax sugar bu ma ko mosoon mënu ma laa ba nga xam tax ko sugar man na ne sugar neex na waaye yow mosula mos sugar mosuloo ko gis nama ko nama la koy xamale bu nu la nekk waaye boo ko mosee nag xam ki ko mos nag ba wax li mu mos moom yow mi ko mosul ana loo ca waxe kun am na jaam ñu ko suñu borom jox kun nekkal fa yakul mu nekk ñàkk xam nag waaye nag kudul dul aarif billahi xamuloo ko xamuloo nam demee li li sëñ Tuubaa wax ne sun borom ku xamul ne jëmmam ja demee ak na mu mel warul doo mën a xam ànd gi mu ànd ak bindee fii ne inna allaha ma ana inna allaha ma astabirina ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ولا ولا خمسة إلا والسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم مع يوي يب خم سن بروم wax na ko ne and na ko jam yi nekkin wa ku xamul lu jëmmi sun borom ja demee mun loo xam nekkin wala mu demee te wax ci tawxid ak ci mel noonu day lekk gëm dana tax nit ki balaa dee ngëmam dañ naka noonu weddi gaa yi yàlla yi seen wax lañu wax ñu xam ko mu leer leen seen digg ak seen borom ñu wax ko nga weddi ko te xamuloo ko dana waral mujj bu ñaaw asalaam والعياذ billah mooy ñu waxoon majaazim yi nga xam ne seen xeetu teewlu si julli ak al ittibaau mooy tànn nit koo xam ne benn sax yéefal la woon wala jullit bu sàggan la woon suñu borom ci benn guddi wala ci benn jamono wala ci benn saa suñu borom yëkkati ko ba teg ko ci daraja ji kawe joo xam ne ay nit jaamu nañu yàlla ay atta aguñu fa mën nañ cee joxe misaal yu bëri hind bint otobar hind soxna yaay muawiya soxna abu sufyan moo mere woon sayyidina hamza radiallahu taala anhu ba ngéejoo ku ko rey nga xam ne umayat ibnu xalaf moo doon moo moomoon jaam bi nga xam ne moom la ñuy wax waxashi waxashi mooy xabshi bi nga xam ne li ñuy wax lance xirba daf ko mënoon a sànni ba nga xam ne mu sànni bañ a jam jafe na lool ñu seet seet nag xamsa ni mu jàmbaaree lan lañ ko mën a reyee ñu xam ne ku taxaw fi kanamam mu rey la nan lañ ko mën a reyee ñu ne daal nañ seet waaye di nga xam ne daf koy dànd lu sori te bu ko sànnee du moy te fu mu dal rek day dugg ba sar mu di waxasi ibnu xalaf ne waxasi soo reyee xamsa gore nga moomatuma la demal bari yàlla naa la waxasi bi mu reyee sayidina xamsa bi nga xam ne sayidina xamsa bi nga xam ne moo reyoon bayu hind ak bayam bu ndaw ak rakam wala magam li nga xamni moy mooy walid ibnu otba mo moom sayyidina hamza mo ray utba utba ak rabia lawon ak walid bi nga xamni mom ray na utba aliyun ray walid ñu dikk fekk Ubayda ibnul Xaaris fakkee kenn ku ci nekk dóor sa morom jaasi ba gaañu ko ñu ñëw fotle ko ndax ñett ñi lañ tànn ñu war a xeex ñett ñi kon bu ñaar ñi pare seen xirnu mën nañoo ñëw fotle ci def fay ko ñoom ñaar ñëpp a dee indi nag tax loolu mu bañee ko Seydina Hamza ba bi mu dikkee fekk ñu rey ko mu xotti biir bi loqi res bi di ko yëy bi mu koy yëy nag am na ci deretu si ngir soxar rek am na ci dina sayyidina Hamza lu jàll ci biiram moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bañ na nee na du boole ci biiru hind bi safara ak dereti Hamza hind nga xam ne looloo ko sore ba mu mujj tuub bokk ci saxaaba yi Omar ibn Wahb moom itam noonu rey yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko taxoon a jox xisa bi mënu ma ko fee nettali naka doon sayyidina Omar moom it reyoon yonente bi ko taxoon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga mujj tuub sayyidina sayyidina Omar radiyallahu taala anhu jógoon ngir yore rey yonente bi suñu borom ci dogalam ci bis boobu mu boole ko ci saxaaba yi mu dem ba nga xam ne bu yonente bi salaa bu wéyee sidna abubakar wéy mooy ci gën ci jullit ñi tay rey yonente da ko taxaw na jóg suñu borom defal lool mooy ittiba mooy loolu le Omar ibn Wahab moom même chose moom itam lu gën noonu la xam ne kon suñu borom tabaraka wa taala ci jës moom day def lu ko soob rek fekk jàmm boo xam ne noonu suñu borom lañ ko dañ ko boole woon ci noon yi mu xëcc ko ba mu bokk ci soppe yi ko gën a jege ci jamono bu gàtt ci diggante bu gàtt loolu lépp na nga ko doon delloo ci sañ-sañu yàlla ak kàttanam ak jëfam lu ko soob jëfandikoom ci jaam ñi lu ko soob waaye jaam ñi ñi nga xam ne dañoo jaar ci yoon wi di dem am nañu ay jaar-jaar yoo xam ne jaar-jaar yoo xam ne ak njàmbaar ak ngëm gu mat ak jikko yu rafet ak doo xaddi mukk ak fit moo la ciy jàllale moo la ciy àggale kon béréb boobu nga xam ne sëñ bi jullee na fa ak jamono jëm ci jullee ak la xewoon ak fañ ko jëmee woon ak ñi ko waroon ñëpp nga xam ne gis fa kenn koo xam ne kuy tudd yàlla la yooyu yëpp teewul mu jullee mu def fa jëf jooju le lu doy lay kéemaan la fekkoon na nag muy ku xër ci julli ba nga xam ne doy na waar li jege gi mu jege suñu borom ni ma ko waxee woon rek nga xam ne day wéttali ko suñu borom ci julli gi nga xam ne amoon ko waxtu bépp waxtu wu dagal julli rek mu ngi ci julli ñi nga xam ne ne gaa ñi nga xam ne dañoo sopp suñu borom ak ci ishq boobu ma waxoon bu ñu leen waroon àjjana ñu musul ca maanaam sopp gi sopp suñu borom di ko tokkamtiku moo gën a neex si ñoom àjjana ba nga xam ne bu ñu leen buñ ñu doxale woon seen diggante àjjana seen diggante ak seen borom ñu muslu ci àjjana ndax dañ koy jàppee natt la bu ndox seen diggante ak seen borom te jaru ko julli boobu mu julli nag ci foo xam ne kenn mosul julli dafay yokk rëyaayu julli bi ndax doomu aadama aada day wàññi coonoom di wàññi ak teewloom bu fekkee ne béréb bi yàgg nga fee toog boo fi toogee la nga fi daan yëg benn mu ci tuburanke wala ci yéem béréb bi wala ci rafetaayam lu mu mën a doon dana wàññi ko ndax miin gi koy miin miin nag ci boppam xijaab la maanaam kiiraay la boo xam ne day wàññi mushahada bi maanaam basiratul qalb bi nga xam ne moo nekk ci xol bi ci gis ci béréb bi miin gi ko miin dana ko wàññi xam ne kon loolu tax lu tasawuf ñi ci gën a bari tàmmoon wëndeelu li ñu tuddee siyaaxa dem ci béréb yu ñu miinul tumuraanke fa faral nañ koy misaal ni ñu waxee ne boo demoon ba Makka yow mi fa kul di wër kaaba gi sa wër kaaba gi moo ëpp tuyaaba julli ak li julli foor foor lépp waaye ñu fa dëkk julli ëpp tuyaaba si ñoom di wër kaaba gi ndax miin gi ñu miin kaaba gi ba aada woo ko nga xam ne kon béréb boo xam ne miin loo ko mosuloo faa dem béréb rawatina béréb na xam ne nit du fa taxaw nit du ca nga lante sa def di julli gën jaamati tumuranke ba tey bërëb bi tumuranke na ko ci yow ba tey bokk na ci xam ne mooy gën a rëyal bi ci dàq miin googu taxoon yonent yàlla daawuda yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na li gën ci koor mooy kooru daawuda daf daan woor fan bàyyi fan ndax bëggul a tàmm koor gi ba nga xam ne tàmm na ko ba dootu ci am métti coono dootu yëpp mar wi ak xiif bi mu bañ a tàmm loolu bëgg waxtu woore rek koor gi des ci bëgg na metti loolu moo tax sidna Ali daan wax ne bokk na ci yim ko koor ci bis bu tàng mu woor ko te xam ngeen ne Sëñ Tuubaa wax na ko ci Masaalikul Jinaan jëf bokk na ci yi gën ci jëf ji jëf joo xam ne joo teg sa bakkan mu tiis ko nga xam ne da ci cee am naqar wala métit ba tax ne yonent Yàlla Daawuda daan woore noonu le ndax watandiku kiiraay boobu nga xam ne mooy kiiraayal miin doomu aadama bi sax lu mu yéeme yéeme boo dëkkee moom jaxasoo moom gis ko mu mel ne yow ci lépp dana tax nga gën koo yàpp tuuti dana tax nga gën koo miin dana tax euh, wet da ko wegoon mën naa wàññi ko ñoom nag day fekk ne tumurank gi day dolliku si loo xam ne matoon na ba noppi bu nekk loo xam ne lii euh, day nekk kamaaliya déedéet day ëpp kamaaliya daf koy yokk daf koy euh, dafay daf ciy tegu naka noonu sidqu nag dafa sidqu fil iradati dafa bokk ci maqaama yi nga xam ne mooy àggali ci assidiqiyatul uzma loolu nag day dogg sabab yi sabab dootu am bi sidna abubakar tawatee ñu ne ko nañ la seetali docteur bi mu ne docteur bi kat mooma seen jàngoro ji ñu ne ko docteur bi la seen jàngoro ji mooy kan maanaam suñu borom moo ko feebaral te suñu borom moo koy faj mooy docteur bi koy faj moo ko seen jàngoro ji nga xam ne kon gisatul sabab liy wéral gisatul sabab lu mu gis yàlla pour moom ni ko sëñ ci waxee woon léegi rek safara lekkewul yàllaay lekke ndox labalul yàllaay labal xiif boo ko defee lekk nga suur ñam suuralu la yàlla la suural loolu xisa yu bari ak yooyu ci Muhyiddin Ibn Arabi bi nga xam ne mu ngi werante benn philosophe ba xamal ko ne ko sabab yooyu aadala la suñu borom yi suñu borom doxalee suñu digganteeg moom ngir muy ay kiiraay ngir ñu mën a tëral sharia waaye ay aada dong la waaye waralul dara mu ne ko ba fi mu ne kon safara yow ni nga ko gisee lakkewul yàllaay lakke mu ne ko safara lakkewul yàllaay lakke mu ne ko ndax nga ma ko prouvé mu ne ko waaw Cheikh Muhyiddinul Arabi daal di rocci secret di nekk ci safara maanaam ndigal gi suñu borom defoon safara mu war a lakke mu ñaan suñu borom mu dindi ndigal loola mu daal di fab ñaari loxoom tibb safara wi sotti ko ci yéreem ëmb ko ëmb ko yang mbub mi ne ko tegal sa loxo ci xal yi mu teg loxom ci xal yi mu ne ko jeqil mu jeqi yëgul dara lu tàng mu ne ko safara ngoog du lakke yàllaay lakke dal di sottiwaat ca furno ba xale ya ne ko teg ci sa loxo léegi bi nga xam ne loxoom loxo philosophe bi jub na xal yi rek mu xëñ ji mu yëg tàngaay foofu la philosophe ba tuube tawfiq nag bokk na ci nga dajeeg lenn ci gaa yi mel noonu wala ñu xaw a mel noonu bu ko defee dootu am sikki sàkk mukk mooy li sëñ bi wax ne wala wala adillatu tasxihi li sirtihi wa diini saxihi ndax bari na loo fekkee ñu di ko werante wala ñu di ko sikki sàkk yow mi suñu borom def nga fekke woon jëf sàngam wala nga gis nit sàngam wala nga gisoon jëfam doo sikki sàkk mukk yow bu aduna bépp ne woon lii amul it yow doo ci sikki sàkk mukk kon wala wala adillatu tasxihi li sirtihi wa diini saxihi tawfiq la am na ñi nga xam ne dajeeg ñoom kon tawfiq la philosophe boobu nga xam ne suñu borom def na mu dajeeg muhidisme arab yi ba mu mën ko loolu moom bu fa jógee théorie yooyu yëpp dootu si gëm dara da daal xam rek ne am na leneen lu am lu bokk la lu ne ñuy waxtaane ak li ñuy gis ndax yonente bi sallallahu dañu ne mbaggum gàtt maanaam xar la gënoon bëgg ci yàpp benn bis Abu Hurayra wala Abu Dar fàtte naa kan la ci ñi ren di gàtt di togg yàpp yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jox ma mbagg mi xam nga nu mu jox ma mbaggu gàtt bi mu seppi benn mbagg jox ko mu lekk ba noppi ne ko jox ma beneen mu seppi beneen mbagg jox ko mu lekk ba noppi ne ko jox ma beneen mu ne ko ah gàtt kat ñaari ñu lay am mu ne ko mu ne soo noppi woon de da nga may jox rek di ma jox rek di ma jox rek loolu moo waral ñu ne kon secret yi nga xam ne suñu borom nëbb na ko jaam ñi xamal ko lenn ci ñoom nga xam ne waruñu koo waxtaan waruñu koo feeñal lu dul ñu feeñal ci tuuti ci ndigal tax na ñu rëy ci gaay yàlla yi ñu bari ci bari misaal yu bari joxe nañ ko ba tàyyi Suhrawardi ji dañ koo rey alxalaaj ñëpp ñu leen rëyee ñu ngi ko tëral ci sharia xam nañ nekk ni ne dafa amoon ci Espagne xam nga ne ñi moom lañ ko ñetti téeméeri at ak juróom ñetti téeméeri ba nga xam ne seen dund jaxasoo naag dundu espagnol ba léegi boo demee fekk fa xaasaay maanaam jeexiti lislaam ndax yàgg ak ñu fa yàgg waaye xam ngeen ne ni ñu lislaam bi nga xamee ne nangu nañ ñu fare lislaam ci réew ñu leen joxoon ku bëgg a nekk jullit te nanguwoo na nga génn dëkk bi na nga génn réew mi waaye dooyu bu dara say alal say kër say tool sa lépp da nga ko fi bàyyi benn gëléem lañ lay jox ak looy dundee ba àgg Maroc fekkee ne nangu ngaa bàyyi lislaam ji nag nga toog moom sa lépp noonu la ñuy def amul juróom fukki at benn jullit taxawatu fa waaye di nga xam ne nag benn borom xam-xam la woon jàngkat bu mag ak benn ak benn wàllu yu li nga xam ne suñu borom dana leen faral di boole ci jamono du kii wax ci weer di ko waxtu woo xamee ne rek wàllu yu bi santaane na ne benn taalibeem ne ko na ngay yéene wax jullit ñu ne leen nangam nangam nangam bu jaaree ci kër wàllu kër alim ba rek mu delloo ko ne ko lu mu la wax loolu rek mu ne ko waaye dellul bàyyi mi ngay wax wala mu ne ko loolu kay du dara loolu moom ñëpp xam na ko yàlla ko wax ba xatal ko ndax nit ñi moom alim bi la ñuy gën a gëm moom la ñuy gën a gaaw a gëm ndax li muy wax dañ koy xam wala yi bu ku amul tawfiq doo ko mën a gëm ba nga xam ne xat na fa nag bay génn dëkk ba di dem lenn ci taalibe nii da ko yow naqal bi nga am ci yàlla boo ñaanoon yàlla rek kii dee nga toog noppalu moo gën di génn réew mu ne ko yi bi ma daataan dogu ci génn réew mi damaa yër xolam ba xam ne li muy wax lépp dëgg la ci moom dimbali sharia rek ngir yàlla ak bu ma tax mu di ko wax waaye bu dara ci njistal wala dara ci kañaan wala dara ci contre ma newoon ci xolam bu ma ko ñaanee suñu borom dana ko nangu dana ko alak waaye su ma bu ma ko ñaanee suñu borom ndax ku sellal la la muy def xam ne kon jullit bi ixlaas boobu mooy li gën a am solo ci mbiram ixlaas nag nam gën a mate mu la gën a jege ak waaye ba waaye du tax nga daal di àgg ci bopp ala te ko ñoo ak ka alxurasaan yi mbir julli nee na ab jaam du sujjoot benn sujjoot ci kaw suuf ci benn pàkk lu dul nga xam ne yomal xiyaam pàkk boobu dina jóg taxaw seedeel ko jaamu yàlla googu mu jaamu yàlla te daañ ko bis buy dee daañ ko bindal jaamu yàlla boobu mu jaamu yàlla ci mboolem pàcc suuf yi yëpp bu mu ci jaamu yàlla Anas ibnu Malik nee na amul benn ci kaw suuf boo xam a ko tudd yàlla ci julli wala ci kar lu nga xam ne béréb boobee mu ngi puukaree yeneen béréb yi nga xam ne kenn julliwu fa xam ngeen ni ma waxoon ne wërsëgu tawfiq ci baatin su borom dafa ko séddalee ni mu ko séddalee jëmm yi la ko séddalee béréb béréb yi noonu la ko séddalee itam jamono yi waxtu yi ni mu séddalee barke bi ak ragal yàlla bi ak salaax bi ba béréb yi suuf yi yi mu def leen ay jàkka yi mu def leen dëkkuwaay yi nit yàlla yi mu def leen jàngukaayu alxuraan yi mu def leen jàngu jaayukaayu sàngara yi mu def leen moyukaayu yàlla yi mu def leen ay marché noonu la lépp demee na nga noonu kon pàkk boobu noonu lay puukaree de ci kanam pàkk yi ci def yëpp te fu mu toll day bépp ngir tudd yàlla boobu ñu fa tudd nga xam ne kon gannaaw doomu aadama moom lépp ba koy seedeel pàkk suuf yëpp kon te julli bi gën jàmm ak jàmm yi bu fekkee ne suuf yi ñu ngi seede géej gi keroog ana ku muy seedeel julli bu keroogee pàcc suuf yi di seede ak di sabba ak di puukarewu ci julli gu ñu julli ci ci seen kaw bu keroogee géej gi ku ngeen xam ci ne kon dana ko seedeel te dana puukaree ci jëfam mu ne kon béréb boo xam ne doomu aadama jullee na fa béréb booba du dañ di julli ci moom ba yomal xiyam xam ngeen ne jullit béréb xam ngeen ne lépp loo xam ne amul bakkan amul xel lu xam suñ borom la wa in min cheyin illa yusabbihu bi hamdihi walakin la tafqahuna tasbihakum lépp loo xam ne du luy dund xam na yàlla te mu ngi tàbbal suñ borom nit nag doomu aadama moom suñ borom daf ko sàcceel xel wan ko sabab yi wan ko banex yi ak naqar yi looloo dox digganteem mu dal def ilimaanam muy xel lu ko xelam jox lay nangul lu ko xelam joxul mu dàq loola lolo moko ko xam yàlla moy kiray bi dox digganteem ak yàlla waaye doomu adama ci bopam boppam ci ni bopam yi ba yaramam lépp lu ci dul xolam même bu dee yéefal lu ci dul xolam day sàbbaal sun borom fu tollu ndax lu ñu bind la te da way muy sey duggal ci illaa sabbi bi xam di waye xolam mom du sàbbaa mukk feeg nit ki tuubul feek mu ngi nek yéefal fonk suñu borom fonk julli motax tax mu ne képp koo xam ne nga jakka lu njàkk sa tuuti tuuti te mu ngi tollu ne kaasum te tax ni wax përëntaan ak xataan ñu tabax ko kër ci aje nit man ne man nga xana kër yu may tabax ci aje bari na de de da aje na mom ci ci gëna tuut la ci am lu tollu aduna wala lu ko bari ngay bala ngay liggéey ba ñu tabaxal la aduna ba fekk la bari rawatina nag loolu misaal la waaye àjjana gannaaw moom lu spirituel la mu ëpp adduna fanweeri junni yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn yahud daf ko mas ne waaw alquran dafa ne wa jannatin arduha samawati wal ardi bi ne ka ar ka ardi samaayi wal ardi gannaaw bon su keneen àjjana moom mu ngi yaatoo ne asamaan yeeg suuf yi waaw kon safara moom fu muy ne mu ne ko xay bu guddee sax su bëccëg di nekk mooy béréb ci boppam amatul distance amatul ree tuutaay amatul yow ak xiyam li ñuy wax aduna bii dafa nekk monde de dimension dimension yooyu day dàqu day dàqu ndax ruux moom xamewul lu sori ak lu jege seetal ci boo doonoon gént boo doon gént rek yow li sa bët di gis boo xamee ne nelawoo mën ngay gént dem fu sori foo xam ne boo doon dem avion nga fay demee wala nga seet sa xel Amérique fa nga fa jaar la nga fa gis France indocine yépp sa xel daal dinañ mën a dem ba wëri ko xel nag nit ki nekk ci àjjana gannaaw moo raw malaayika ci xeetu nekkin wu yéeme nga xam ne mën na am junni àjjana àjjana ji ci nekk junni soxna nekk ca mu nekk ndoog soxna yépp ci benn xasiinu bët te benn bu ci nekk dana mel ci moom ne kenn ku nekk yow kenn la nekkal kenn ku nekk li ci def da ci kéemaan yi mën na bu fekkee ne gis naa léegi ñuy indi lu mel mm-hmm. euh, wa barakaatu eh, ñu ngi ziyaare suñu sëriñ bi di màggal suñu ustaas bi sëriñ sàmbay eh, di fàttaliku la ma waxoon ca bopp xasida googu ma ko woyoon قلنا يا طالب العلم لا ترحل إلى الهند ولا للصين ولا الشام لذي زند إن كان في بيننا شامبي هوى رتبا وسؤددا وتقا جنباه كالغند فقد تصوف بعد الفقه من عكست أموره قد تصدى للعلي الفرد بمداتا داتان من ما يعني ko sëriñ sam nga jéggal ma ma am ñaari question bu njëkk bi mooy dama gis ci ci téere boobu mën naa wax ne yow laa mësa dégg nga tudd ko topp naa téere bi fukki at soog am ci benn nar gànnaar bu demoon gànnaar wacc ko fi muy lataiful minani cheikh dubaab charani dama gis ci biir lu ma jaaxal lool muy cheikh abul abbas al mursi amoon genn gan ba guddi jotee mu xool ci xaraafal gis gan gi di jëflanteeg soxnaam ba suba jotee mu di ko gunge ci euh, bañ tolloo ci dex gi wala ci géej gi bi ko gan gi tàggoo di waaxu ci kaw ndox mi di dem mu ne ko eh mu gestu ko mu ne ko waaw lii nag ak loola nag mu ne ko loola sama jëfa lii ak maya ma foofu nag ma bëgg a laaj ndax kon nit day àgg ci dëgër ci jaamu yàlla ba genn mooy yàlla bu gaar du dox diggante ma xaritoo gi mu xaritoog boromam wala déet loolu mooy question bi ñaareelu question bi mooy gis naa ci awaariful maarif euh, zunnun al misri yebal ndaw ci abu yazid al bustami mel ni lu ko doon yedd ci nelaw guddi abu yazid ne ko góor dëgg dëgg dëgg day nelaw guddi bu xëyee àgg ci àggukaay ba fa gaañ jëm salaamaaleykum wa rahmatullah mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaw laaj boobu am na ci téere yi ñu ci jaawale tuuti moo di ci tàmbali bi kooka mu gisoon mu jëflanteeg moom du soxnaam waaye jaamam la bu jigéen wàll yu ñetti xeet la ki ko judduwaalewul te jaamu yàlla ba am ko mooy teen teen dañoo gas ba mu bënn waaye teen dana màbb dana dëy dana ngacc ki nga xam ne judduwaale na ko te jaamuwul te liggéeyul moo di dex dex am na fu mu yem ki ko judduwaale ba noppi jëf liggéey ba sonn am ngërëm mooy géej yemiwul fenn gën na bari nag ñett ñooñu boo gisee majjuub day doon koo xam ne xelam mi nga xam ne mooy taatan xam-xamu sere du mat day am lu mu manqué ci doom aadama ñu tudde ko lu mel ne ak laago ci ruux laago ruux nga xam ne laggi gi mu laggi ci wetu ruux tax na suñu borom jàppewu ko dara nga xam ne na ko suñu borom bindee woon bind moom du deñ mun la def lu tax nam meloon deñ bind bi ko suñu borom bind mënu koo dindi ndax xam nga ne nit moom ni sëñ Tuubaa waxee ne koo faraxal moo laa min arbain ajal xalqin wa xulqin wa risqul ajal bind bi la yàlla bind nga gudd wala nga gàtt mu ne su ko dindi majjub bi loolu la juddwaale noonu la ko suñu borom bindee def lii ak def lii def lii mënu koo dindi ndax du ko gisee lu mu sàkk woon ba am ko wala lu mu sonne woon aw meloom la melo mënu koo dindi kooku mooy majjub bi majaas bi nag ay xeet lañu am ñoo xam ne bu ñu nee weeru koor ñi ngi seenu weeru koor bu ñu nee weer yi feeñ na dañuy dal lekk ba suur nelaw du ñu yewu du ñu yewu du ñu yewu bañ ba weer yi feeñ ñu war a wori suba ñu woor waaye duñ julli nga gis gaay yàlla yoo xam ne àgg nañ ci yàlla waaye benn waxtu rek buñ ko faatoon alku moo tax ñu ne dana jaar ci kaw dex wala ci kaw géej di dem ay ñoo xam ne ñu leen gën fuuf gën leen a jege yàlla dee nañu ngir mar mar rey na leen bi suñu borom ci boppam mooy yéeme ba tax weddi am danger tax lu ne lay jëf lu ko soob rek yulju leela fi nahaari wa yulju nahaara fi leen yaxruju xayamin yaxruju xayamin yaxruju mayta min al ayin suñu borom tabaraka wa taala lu ko soob lay jëfandikoo ci jaam ñi waaye nag yi am moo di ki nga xam ne moom amul benn laago nit ku mat la duñ ko baal li ñuy baal kee ni nga xamee ne wala yi daañu ko baal lu ñu doon baal yonent mu mel ne xalel ak mag li xalel bii def muy jàmm ñu xam ne dafa xamul dara xalel la bu ko mag mi defee ñu yedd ko wala ñu duma ko loolu mooy ki gën a xam yàlla moo ko gën a ragal ki ko gën a jege moo ko gën a mën a màggal jëmm ji nga xam ne nag maanaam ganuk cheikh abul abbas al mursi boobu cheikh abul abbas al mursi moo ko gën a jege moroomam gën ko koo xam ëpp ko màqaama waaye loolee koo ko def mënu ko sañu ko bu ko defoon mu yàqal ko lu dul jeex kon nag ki nga xam ne mooy euh, capitaine bi nga xam ne mooy joxe commandement ci gaal gi heure yi ouvrier yi mën a def te du labal gaal gi moom bu ko defee mooy il gën a indi li gën a garaaw naka noonu kilifa goo xam ne bu jàddee ñu bari toppandoo ko وتحن إذا زل العالم زل بزلته العالم وتح كلفة برام خم خم ولا كجيك يالنا بودة فيدرة نبالي روي كتا الكوكون موم أك جادة موغن ري موغن غراو جادة سامبو سورا باي بو خمني كن خموكو بو جادة دين كوي خيب ريب دارو بيشا خيو بسنا ديب كوني ما سنين بسيرو نينا رضي الله موم تيبو كم دي نينا يكم نينا koor métti na ci moom métti goo xam ne xam na ne suñ borom tëgatu ko ko xam na ne mënu ko waaye xam na ne bu ko bañoon a def rek ñu bari topp ko ci te kon ñooña moo leen moo leen koy yóbbee xam ni ne kon ma ne ki gën a jege yàlla moo gën a bari lu mu mën a wattaniku moo gën a ragal moom la jàdd jàddam gën a rëy ki nga xam ne amul solo moom ma ne nag gannaaw mëj suuf boobu nga xam ne moom noonu la ko suñ borom bindee bu jaamu bu jaamul yëpp noonu la mel suñu borom may na ko may yooyu nga xam ne man nga koo rey de waaye mënuloo koo tàggaleeg moom moo tax boo déggee ñu naan sëlbu ki ñu koy def mooy ku ko judduwaalewul ki ko judduwaalewul moom la ñu mën a sëlbu waaye ki nga xam ne dafa judduwaale moom wilaaya gi mën nga koo rey de waaye doo sëlbu imaanam am na ci ulama xam ne noonu lañ ko waxee kon Cheikh Abul Abbas al-Mursi radiallahu taala anhu xam na ganam googu bi mu ko dabee ba ne ko waaye sa waaye lii nag ak loolale mu ne ko loola mën a woon lii suñu borom xam na ne kon moom fagguwul jaamuwul yàlla ba mën a doo jaar ci ndox mi suñu borom la soob rek mu def ko ko moom ci boppam nag moo xam ne moom ku saggan la teewul may gi mu am ko rek may gi taxul mu mën a wóolu ne kat aji texe la ëllëg wala ajina la jëm ndax iblis mën na def nu ndox ci géej gi wala ci dex gi iblis mën na naawe penku ba sowu ci xefinu bët iblis ëpp xam-xam ñi gën a bari ci borom xam-xam yi borom xam-xam yi mag ya mag a mag a mag iblis teewul ñu dëkkal ko safara te iblis nekk na sangub malaayika yi ci suuf nangami asqar am na sax ñuy wax ne foo def chebre ci kaw suuf rek iblis mas na faa sujjóot di ko sëñ tubaa di waxee mbirum bala balaan ñu nu mbaa ak birsiis te na képp ku mu doon ba tey li nga xam ne mooy leçon bu mag bi ñu suñ borom may loolu kenn du leen topp kenn du leen roy moo tax ñu ne majjub du royukaay ndax majjub la mu am xaas la ci bind buñ ko bindee la moom rek ko moom keneen wute moo tax du àggale nit ñi ci yàlla ndax jaarul ci yoon wi ba xam ko ba xam pakke yi xam jaar jaar yi ki nga xam ne nag ndax dañuy wax ne al salikul majjub ak al majjubu majjubu salik ak al majjubul mujarrad ak salikul mujarrad ñeenti sëriñ yooyu ñoo am waxtaane nañ ko ba tay ci ay conférence waaye ñaari sëriñ yi rek ñoo mën a àggal nit ci yàlla mooy asaliful majdu ak al majsu al majzubu salif ñooñu rek ñooy àggal nit ci yàlla al maj al majzubu salik nag mooy sëriñu sëriñ si mooy li gën a néew na teqantal nañ ko ay yoon kon defe naa ne aaju woowul di ca àggaat laaj boobu daal nga xam ne mooy mbir mu noonu rek mooy li ci li ñu ci mën a jàpp mooy yàlla lu ko soob lay def te yàlla ni mu bind nit ki dañ xalq bindin moom du dañ waaye nag ëllëg moom ak lay xew moom jaar bi fu mu toll waat na koy ragal war nañ wattandiku ndax nee na suñu borom nëbb na ñett ci rek loolu xam ngeen ko sax soxlawul ma di ci kon daal majaas yi ñoom du ñu ay royuwaay du ñu ay royuwaay ku leen roy daañu tëmb yow nga diig ndax nañu mel nga melul waaye nag loolu nag du lëggan la gën nag la ñu war a roy waaye nag yàlla lu ko soob lay def daf nuy xamal rek ne daf nuy xamal yàlla rek ne yàlla lu ko soob lay def ajul dara ci dara takkul dara ci dara nu mu ko soobee rek la koy jëfe bi ci teg woon ci mooy mooy dunnul almisri bi mu yëblee ci abu yid ah waaw ngir xaw koo yedd ci nelaw yu guddi waaw góor dëgg waaw fanaane nelaw waaw tey àgg ci àgg waaw abu yid bistami bi nga xamee ne sax benn waay daf ko njëkk a yónnee yóbbante ko yónnee ko ab sajaare ne ko boo demee ne ciy julli guddi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 te waxtu may nelaw sama xol mu ngi setantal ay alquran yi ma di ci waaru di ci génne ay xam-xam yoo xam ne bu ma yew woon it du ma ko mën a wees xam ne seen nelaw yeneen xeetu nelaw la abu isid bustani noonu nga xam ne noonu la ko zunul misri waxe loolu rabiat al aday wax na ko sayidina sufyan as-sawri tax sufyan as-sawri rabia dafa ne ko yow daal ku sàggan nga te Sufyaan xam ngeen ko ku doy doy waar la ku jéggi dayo la ku àgg ca àgguwaay ba la waaye rabi al adawiya bi nga xamee ne ñu julli te Abu Yuusuf Bistaan kii euh, Sufyaanu Sawri Sufyaanu Sawri di fàkk fu mu lal sajaada bi rabi al adawiya bi nga xam ne jigéen moom dafa daal di yëlëb sajaada bi teg ko ci jaww ji daal di taxaw ci kaw julli sëlmal waaye Sufyaanu Sawri foofu nga xam ne àgg na fi te rabiatul adawiya yedd ko ci lu mu jàppe ne ak sàggan la fekk na ci sufyaanu sawri ba tey ak farlu la waaye dañu bokkul xeetu farlu farlu yi dañoo wuute li ñu ne lawnul maa lawnu inaahi ndax aarif moom ni nga xam ne noonu la nit ñi mel dañ ne sayidina bi ne bu ñu ko njëkkee laaj ma sifatul aarif aarif na mu mel mu ne kaana hunaa fa dahaba fii la nekkoon dem na ñu dele ko ko laajaat mu ne kaa inun baa inun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 موي لي سن بي واخني وفاء المولى من اربع اجل خلق وخلق ورزق في الاجل خلق بن كو واخه ندا دانيو رما دانيو هل هل الخلق يورث يورث او لا يورث ني الخلق لا يورث ديكو بن كو دون بوكو ولا فريك مون لا ها ديكو دنج كوي دون manam li ñuy don ci diko bokku la diko ji ahlu tasawuf تحلية والتحلية أجد ملا يجن رفت منك خلق عظيما كوكو بيتا جيني كو جرق مؤمكو ملا وكين تي ملا يجيكو ينغ أمني تاقت نسا بوك بد نقص لب تي أندار الشريعة بغا حمني كسل لنغ مجي تي كنان مجي تي بغي مجي تي صهر مجي تي نوني مجي تي بغلو سيو نيكل مجي تي بغي درجة مجي تي بغي أدنى مجي تي يب لول ما الخلق الخلق جوجنا بين كو دون فوق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 ak aarifoona billahi ñoom ñëpp dañoo wuute ndax kenn ku ci ne am nga meloo xam ne sa morom fekku la ca noonu lañu la ñuy wuutee même buñ bokkee ci benn maqaama yi noonu la seen jikko yi wuutee moo tax mu ne wa faraxal moo laa min arbain ajal baat boo xam ni ñoom dañ ko daan firi li ñuy wooyee al bidaa mm-hmm. bidaa moomu nag ñu daa ko def ñaari xaaj mm-hmm. bidaa asana ak bidaa sayyi'a mm-hmm. bidaa bu rafet mm-hmm. ak boo xam ne nii bu ñaaw la mm-hmm. jamono di dox ba léegi am ñu tekkee bidaa neneen mooy ni bidaa yépp a bu rafet amu ci di daliloo hadis boobu ñëpp xam kullu bidaatin dalaala may laaj nag ñële lan moo doonoon seen tegtal dañu séddale ko ñaari xaaj yooyu wala ñi ñoom tegtal boobu foofu rek la war a yem wala déet bidaa am na maanaa yu yaatu al bidaatu ci arab bi lislaam ñëwagul it al bidaatu mooy tekki maanaam lu bees lu bees nag lu ci bokkul woon lu bokkul woon ci lislaam moom la ñu tuddee bidaa li nga xamee ne nag ulamaaw yi dañuy sukkandikoo xaddiis ba ne lépp luy bidaa rek lu ñu mën a tuddee bidaa rek lu bon a bon la mooy kullu bidatin dalalatin wa kullu dalalatin fi naari iyaaku bu max desaati mu mori fa inna kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fi naari na ngeen waxtandiku yu ñuy sos yi ci mbir yi ndax lépp loo xam ne lu ñu sos la rek ak réer la te gépp réer safara la jëm ñu ne olamaa yi nag seet ne am na yoo xam ne mënu mu ne ci jamono yonent bi daañu ko daanañ ko def waaye nag kenn mënu koo génne ci lislaam jëfi lislaam la waaye nag saxaaba yi xamuñu ko woon ndax gisuñu woon yonent bi daan ko defee wala saxaaba yi kenn ci ñoom di ko jëf ñu ne waaye nag ci mbir yi lislaam la ñu daal di loolu la ñu ñoom ñu daal ne mënuñu koo ñàkk tudde bi daal ndax lu lu bees la waaye kon mu tudde ko bi daa bu rafet dal du ñu ne kon lu ñu tuddee nak bida bu ñaaw moy lo xam li dafa féeroo manam féewaloog dik lislaam ñu dal di joxe misal ñu ne gàmmu masalan wala lu mel gamu gàmmu ñu ne gamu yonent bi sallallahu wasallam bu ñu fi jógee ak bu ñu fi nekké yépp daawu ñu gàmm sahaba yi daawu ñu gàmm ba ci al malikul muzaffar mo ñëk xewal gamu waye ñu gis ne gamu ah gannaaw juddu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañuy màggal ak ah, gàmmu ñu ne gàmmu kon lu rafet la ndax ki nga xam ne moo ñëw xet li bindee fi xamal leen seen borom te ku ñu fonk ku ne réew mu dëkk boo ca demee sàkkal nañ ko bis réel ko kon sunu yonent bi gannaaw moo gën a féete kaw ñooñu ñuy fonk ñëpp bisam bi war nañ ko fonk ba daanaka boo ko seetee pakki adduna julit ñëpp ci réew yi julit ñëpp daje nañ ci di di gàmm ñu daal ne kon bidaa bu rafet bokk tidak bu rafet li tax ñu tuddee ko ñoom bidaa ba noppi rafetal ko rafetal bi mënuñu ko ñàkk def ndax juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam màggal yonent bi kenn mënu def li tax ñu tuddee ko ba bidaa tudde bi ñu ko tudde di ne juddu amul benn juddu ci l'islam boo xam dañ ko daan fonk te itam di ca def nangam ak nangam te bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñu gën fonk am bis bi yi daawuñu ko yi daawuñu ko magal ba ci ñetteelu euh, xarnu ba ci ñeenteel ñu soog koy tàmbali loolu ñoom ñoom dal di koy tuddee bidaa loolu nag mooy lan seet kon léegi bu ñu nee bidaa mooy loo xam ne lii daawuñu ko def xamuñu koon démb te di ko def dinaa ah, kon bidaa dina bari ñu ne bidaa dana bari ndax lu tax kon day jàngale fiq dana daal di doon bidaa tawxiid nii ñu ko sëree di poser question di tontu ilmul kalam xam-xamu naxwu xam-xamu aaroog ak mantiq ak bayaan ak yooyu yëpp kon biddaa la ñee daal di tontu ne ah waaw waaye loolu ci diine la waaye du ci jaamu yàlla ak jaamuwunu yàlla woo xam ne wi yonent bi daawu ko def moom la ñu biddaa te mënuñu koo dàq ndax lu rafet la moo tax ñu ne biddaa bu rafet ki ne biddaa bu rafet ak ki ne du biddaa ñoo bokk ay ay lay ndax ki ne bidaa bu rafet la mu ngi jublu ci bidaa gi ne rek saxaaba yi daawuñu koon def kon dawuñu ko def ci jamono yonent bi tabi'oona yi daawuñu ko def kon mën nañ koo tudde bidaa lu tax ñu rafetal ko nag moo di ne def ko gën bañ koo def ñu ne déedéet bidaa kay mooy jëfe noo xam ne du jëfinu lislaam te juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam liñ ciy def lépp du lislaam digle la dañuy jàng alquran dañuy julli dañuy tudd yàlla dañuy def lépp loo xam te yi ciy def yépp lu ñu tibbe ci lislaam la loo xam ne yonente bi sallallahu moo ko indi te dañ ko daan jëfe ci jamono te moom it daan ko jëfe jëf ci bis nag ba tey tànn bis ci xam nga nee nag bis bi du bidaat ndax imam malik ni sëñ bi waxe ci masal ko jinaan wa kaana malikun imamuna yudin fi kulli shahrin saw ma ad ad ad ad ad imam malik dafa daan woor ci weer wu nekk ñetti fan bu ko defee dam gannaaw benn bu nekk fukk lañ la koy fay weer wi ñetti fan yi ñu ci war bu ci nekk buñ ko fayee fukk day mel ne war na weer yëpp mu mel ne kon dafa dëkkee woon koor ñu seet na ulama wu kenn ku ci nekk am nga xeetu jaamu yàlla boo xam ne yaa ngi koy def te tuddeewuñ ko bidaa yonent bi ñu gis ne sallallahu alayhi wa saxaaba yi saxaaba yi daanañ wéet jëfe loo xam ne bu ko yonante bi salaa bi mu ko xamee daf leen cay encouragé wala mu wan leen ne jub na xam na ni itam yonante bi salaa sallam moo sunnaal ijtihaad ijtihaad mooy lan bi nga xamee esprit diine ni nga xamee ne ba mu yéene loo ne képp ku gëm yàlla ak bis bu mujj ba bu mu julli takkusaan lul ci dëkk bi banu xuraysa te bi nga xamee ne dem nañ ba takkusaan jot ñii julli ñii bañ julli yan bi sallallahu alayhi ba mu agsee li mu njëkk a laaj julli ngeen genn wàllu nit ñi ne ko julli nanu genn wàllu nit ñi ne ko julli wunu ñu ne julli nanu mu ne leen lu tax ngeen julli ñu ne ko da woon képp ku yàlla ak bis bu mujj ba mu julli lu dul mu àgg giir Banu Qurayza yàlla ak yonent bi moo tax ñu julli mu julli mu ne leen lu tax julli woon ñu ne ko dañoo xam fa nga teg julli ak fa yàlla teg julli nar noo mukk julli jot nu bañ koo julli waaye da nga bëggoon bu fekkoon ne kenn ku nekk nar naa jullee ji takkusaan balay takkusaan a jot mu àgg giir banu Qurayza ba mën faa jullee gaaw googu ñu si jublu woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam néew ci kenn yaa ne ci diinakum diina ji mat na tey tekkiwul ne masala yëpp ba ba saa di taxaw masala yëpp àtte nañ ko wala wala wala ci alquran waaye xamal nañu esprit diine ba nu xam li diine bëgg ak li diine bëgg ba nga xam ne lépp lu xew daanu ca mën a àttewu ci biir diine ba mën a la ñu war a jëf loolu wane na ne kon bidaa amul ndax yonent bi sallallahu alayhi teew na wax Omar ibn benn question ñëw mu ne ko defal ijtihaad fexeel ba xam ko mu ne ko ndax dagan na ci man ma def ijtihaad ci sa teew mu ne ko ndax du du teraanga ci yow nga def ijtihaad ci sama teew ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf doon jàngale ijtihaad ijtihaad mooy lan xamoon na ne jamono day dox di soppiku di indi yeneen yu amul woon démb ak yeneen yoo xam ne amul woon bërki démb bu yooyu ñëwee te nun nuy jullit nañ koo àttee ci lislaam nu xam ne atte lii kon musul gannaaw amul woon l'islam atte wu ko woon waaye buñ delloo ci yi l'islam atte seet la mu bëgg ak la mu bañ ak la muy wattandiku ak la muy topp daana mën a atte lii ci fugal l'islam teg loola moo mu jàngal nu ijtihaad mu xamal loolu kon nu ñu mën a def ijtihaad lu ñu bale ñu digle la lu yonente bi maye la te sunna la sax ndax santaane ne ko ndax wax na Omar ibn Laat ne ko defal ijtihaad te ba mu yebalee ci girbanu Quraysh itam du kii kon ñi nga xam ne dañoo def ijtihaad ba xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne mo dak réer ci àdduna indi njub indi leer xam yoonu texe màggal bisam bi dara gën koo am daraja ndax bis bi ci boppam bis bu màggal ni ma waxoon ne noonu la suñu borom séddalee ngëneel yi ci bis yi séddale ko ci jëmm yi xam ngeen ne guddi ajjuma guddi laylatul xadar guddi gàmmu yow bu fekkente ne ni la lislaam maye nga ne weer ne danaa ci war nangam loolu du bidaa ndax kooku ijtihaad la mooy seet la ba xam ne lii sharia euh, euh, bëgg na ko lii lu jëm ci yàlla la nga sas ci sa bopp loo xam ne li xam nga ne dana la jëriñ mooy mu di am solo ndax nit ki ngir muy sas boppam ak ngir waxtu wu nekk mu seet loo xam ne dana ko jëfe ngir am nekk tey nga toog ba mu yàgg nga mar jaamu yàlla nit tooñ la saaga la ba jot la nga ne léegi daal naa ko baal ngir yàlla ndax sama yiw gën a bari man kat ñàkk naa li ma def doyu ma nga daan ko def loolu jëf la joo xam ne yow def nga ijtihaad ba def ko waaye mënuloo ne tudde naa ko fenn ci kii waaye lislaam maye na <clears throat> ñi nga xam ne nee ñu yii ñuy wax bidaa bu rafet du bidaa ci lislaam la bokk foofu la ñu dëgg te dëgg suñu ñu nga xam ne nee ñu bidaa bu rafet la bidaa ji ñu ngi ci jublu lu bees la maanaam lu ñëw gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba noppi nag waaye bañ ko rafetalee dàq nañ ko ci lépp kon nag buñ ne kullu bid'atin dalalatun kullu bid'atin dalalatun booba bi bid'a yii génn na ci moom bokku ci ndax bokk na ci ñu mën a bañ a tuddee bid'a ndax moom ijtihaad lañ ko mën a tuddee ndax waxtu wu nekk ba lislaam ñëwee ba léegi kenn ku nekk bu fekkee ne xam nga lu bon bon yaa ngi def loo xam ne xam nga ne ci lislaam nga ko tuddee waaye yaa ko tànnal sa bopp di ko def loolu moom bu nu delloo ci hadis wala nu delloo ci dundu saxaaba yi daanu gis ne bari na lool loo xam ne saxaaba yi koy def buñ bi bi nga xam ne fekk nañ ko tawat ñoom saxaaba yi fekk ñu nekk ci yoon ñu ñu ñaanale ko fatiha mu wér ñu weexal leen ab gàtt bi ñëwee yonent bi sallallahu bi ñu ko reyee dafa leen jox leen ma ci sama wàll ana lu leen xamal ne fatiha saafara la ijtihaad la ñu def ijtihaad ci lañ dëkk képp ku farlu moom foog ngay def ijtihaad ijtihaad moom noo ko mën a defee rek da ngay jékki-jékki sax sa bopp ne tey jii daal naa def junni laa ilaha illa ndax daal tàggal naa gëj naa jaamu jaamu bu bëri wala tey jii daal naa wàccee kan wala def dinaa def naan yaa ngi ko ci biir ci lislaam waaye yaa ngi def sa ijtihaadu bopp boo xam ne da nga ko def da nga seet li nga xam ne yaakaar nga ne xam nga ne am na yoon sax te baax na loolu nga ne naa ko def loolu du biddaa moo tax ma ne ñi nga xam ne tuddewuñ ko bidaa tëgal tëgal nañ ko fi dëgal fu wér a wér a wér ñu ne la it um, obligé nañu mënuñoo yom ci ne bidaa la ñu ne bidaa ndax buñ ne kullu bid'atin dalalatun buñ ne xasee ba ne ne kon na gàmm dàq na bidaa gàmm ndax bu yoon si sallallahu alayhi ne ummati laa tee ñu ala dalalatin sama xeet duñ daje mukk ci réer te xeetam bi daje na ñoom ñëpp ci gàmmu kon gàmmu dugg réer te gannaaw bu kullu bid'atin dalaalatul kon kii du bid'a mënul nekk bid'a raisonnement boobu boo ko seetee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ummati laa tajtami'u alaa dalaalatin sama xeet bi duñu daje ci réer mukk te xeetam bi fi mu nekk daje nañ ci gàmmu te nee na kullu bid'atin dalaalatul bépp bid'a ak réer la te daje nañ ci te bi daje nañ ci kon du bid'a kon ñu ne du bid'a am nañu argument yu dëgër yu wér a wér a boobu mooy li ñu doon laaj leer na ko tabaaraka laahu jazaakallaahu xayr atu miayaan bi wax ci ba waaye miayaan ay di doxri ci mantiri il mm-hmm. mu ni baat boobu lan lay teg al miayaan mooy borom bët yu am tooke borom bët yoo xam ne lu mu xool am na ay dëgër la am na ci ñoo xam ne bu ñu ko loola yàqu xam ne bu ñu ko nee jàkk setantal ko rek dana am na ci am nañ ci ay fu ñu dëgër ñu dëgër fu ñu dëgg ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fàtte waa ji nam tudde si dafa doon sangu ci benn espèce tappaat bu ko wër bu gàtt bu nekkoon ku yàlla bindee bind bu rafet yaramam rafet na muy sotti nit ñu ndox am ko borom ay musuma gis lu dul tey ko rafete ni yaram ak rafet yaram waa ji ne am ko dégg waa di jant daataan soo cër yi banque muy bëgg a dee yonent bi sallallahu alayhi ana ku ngeen ci xalaat nga xam bu ñu ko xoolee xam ne bët la nit ku ngeen xalaat ñu ne ko diw dax ba mu romboon na ko muy sangu mu wax nangam ñu woo ko mu raxas fii raxas fii raxas fii galax ni ko ñu tuur ko waa ji mu daal di jóg kan mu seet ñu ne saxaat ko mooy wayis jënul miyaanu sharia ci ayu mooy bët boo xam ne dafa ànd ak tooke moo tax ulamaaw yi nee ñu dañ koy tëj ci wa yasjanu mi'yan haythu ishtahara bi dur fi manzili na fekk nag ci këram lañ koy tëj na fekk na nag dafa siiw ci ne lore na lor yu bari ci nit ñi ci bëtam am na ci bët am na ci lamiñ am na ñoo xam ne maanaam li wala di wax cet wala ci ñoom xam nañ ko dégg nga ayu bët ayu lamiñ wala maaw yu bari dañ ciy musuloo musul ba tay boo seetee ay xadis yu bari wax na tooke bët tooke lamiñ kon loolu lu sax a sax la loo xam ne am na benn conférence bu ma defoon te wax mbiri euh, li wala fi wax euh, bëri gudd ki ñuy tooñ ak yooyu euh, misaaloon naa ci affaire wampire yooyu comme jógee ba ñu di ko tuddee ay nit di ko def ay silmak yooyu ak affaire maanaam jargoñ yooyu ak wang yi nga xam ne day naan gerte gi te du du fukk doom bi di ko xara ak itam ni nga xamee ne sel yu noonu lay naane sa deret te du la jam du du la bët ak bi nga xamee ne moom jargo yooyu mën nga teg fii euh, dara ñu naan ko te nekk ca ci ba te nekk ca ca toiture ba waaw ba noppi te doo gis fu muy jaar ñu bare bari ci ay rab yoo xam ne euh, su borom dindi na leen noonu muy kéemaan te sëriñ Sam ñoo ngi lay siyaare dina nuyu euh, cheikh li may laaj nag moo di rafaxani ilal jinaani jiimu Serigne Touba dani mi ngi jëm aljana ànd ak ñett ñett ñooñu nag bëgg naa leen a xam muy benn bi benn bi mu wax ni yàqin yel baaxi mamata sarmada yàlla musal na ma ci faatu am fu ma gis mu naan waccal ayaati wa maatik si na sama deeg sama dund naa ko def ci na ma bëgg a laaj yooyu ñaari wax daal sama jéggi yëgu ci ñu leeral na ko salaamaaleykum rafaqani ilal jinaani ziimu wali siwaayo zordiha rajimu ñu wax ne jaawatu maanaam li ñuy wax xaatimatul mataaf bi sëñ bi bi mu wàccee liggéey nga xam ne jógee gu fi xam ne li ko suñu borom maanaam mu bindaat ko fi sax am na ci lu bari loo xam ne daf koo dindi bàyyi ko li nga xam ne nag waaye liggéey lu fi doon liggéey def na ko ba noppi xam ne suñu borom tegatu ko dara li moom la ahlu tasawuf di wax al iidu al iid mooy nga wàcc liggéey bokk la wa'bud rabbaka hattaa ka yaqiin am na kii yu bëri euh, faram fàcce yi ci bëri yoo xam ne jamono gi du ko du ci waaye bi mu ne euh, bu muy way jaawatu nga xam ne wa umri ilal jinaani iidu lim fi toog diggante boobu ba ba muy dem ajjana iid lañ ko tuddee ci tasawuf iid mooy suñu borom tegatu la dara jaam nga bu ñu goreel ba libre nga bi waxee ne جاورت بالفرقان ربي المعين نيانتي نوني لإندي ملكت نفسي مي أن نفسه وزاحة اللعين لعين موي شيطانة نفسه شيطانة نفس نفسي وزاحة الأهل من دنياهم مي الدنيا زاد الجنان والقادة للهواء مي هواء نحد بوبونيا نفسه أك شيطان أك الهواء أك الدنيا مدى جديد لسيرك dal di tudd ñett ñi ñu ci muy àndal ba àjjana rafaqani ila dinaami diimu muy nafsu muy alhawa muy ak ak dunia mu misaal ko ci biir bi mu ne rafaqani ila dinaami diimu wa liswaay jusdi arrajim pour fi amillahi wal fujari comme bëri malak nafsi ci tàmbali bi nafsu moom nee na moom na ko ba nga xam ne fu ko neex la koy jaarale amul ci dara lu ko bakkanam di laaj lu bokkul ak lu la yàlla bëgg yonente bëgg ko mu bëgg ko kon bakkanam mu ngi dund waaye amatul len ab jaam la moo raw taalibe boo xam ne bu mokk la kon noonu la ko suñ borom wulli la bakkanam ba bakkanam ni mu waxee an nafs wal xalq wa cheytaanu qad faragu min qasdi durri li dunya taxat salama ñu ngi ko wax ci alqalbu mu di bakkanam ak mbindeef yi ak bànneexam ak aduna yépp noppi nañ ci di ma jéem a lor ñeent noonu yooyu nga xam waaye bu boobaa tax ñu mën a gis suñu borom ruux rek la ñuy doon ndax ruu même nit ki muy dund ci àdduna ruu gi bu fekkente ne jëmm ji nit ku sell la ku am nit li ñuy wax sainteté xam ngeen maanaam daal xam nga ñu ko mën a waxee sell bu mat daal mu ne sell ñaari dëgërale vertu ak sainteté vertu moom mooy nit ki nga xam ne muy góorgóorlu fu mu toll jëm ci mat jëm ci di mat rek di góorgóorlu di def lu baax rek wacc sori lu bon ki sell nag ba xam ne mënul la def lu bon moom lu bon ñëwul ci moom ba mu ko ne nii sëñ bi waxee ne ñun de lu bon duñ ko xool ci suñu bët duñ ko déglu suñuy nopp duñ ko laaj suñuy loxo duñ ko xalaat ci suñu xol sell bu bu sell bu mag boobu nga xam ne moom wax sainteté sell boobu bu ko nit ki meloo nga xam ne ay aw meloom la du caagin lu koy dikkal ci ay jamono booba lay mën a gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku sell la wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis bee koy gis bis bi da koy gis li mu lay fàggul melo li mu lay jox moo lay may suñu borom tabaraka wa taala man la feeñ ca fa sa nga gise ko noona wala yu bari daal ne gis naa sama borom nangam nangam dé sang ko a gëm a koy gëm ñi ko mën a gëm ko léegi suñu teewoon ci benn musique dana am ñoo xam dana neex ci ñoom am ñoo xam du leen du leen féete fenn problème mu dënk la maanaam la guula yoon yu bari nag guur doon boo xam ne ki ko yëg moo ko mën a yëg ki ko yëgul mën ñu ko fexe ba yëgloo maanaam am na loo xam ne ko ruuslu naa wax ni ko Imaam Xasaali di misaale ki nekkul góor daal maanaam euh, mënuñu ko misaal <laughs> jëfandiku ci góor gi <laughs> sëñ a ñu laaj ci benn laaj rek. maanaam bi mi nga xamante ni bii loolu taalibe yi. li ko xewlu mooy kafe. ko bëgg lool ba nga xamante ne am na ay sang yoo xam ne bi ñu ñëwee. dañ leen koy fàggul leen ko defaral. daanaka am na ñoo xamante ne boo xelli woon sax yittewoo ko lool. ñu la lii mu nga leen lii de kafe Tuuba la ñu àtt na gàntu. wala ñu wax ci ginnaaw ah lii de bu ngeen ko moytul nangam wax nangam wax nangam. dañ bëgg nga baaxandi ci rek. kon ñun bëgg nañu ko rek léegi ci layee nga ci léegi ci lalee gi ci ak lee kafe moom ak attaay suñ bi daana ko jëfandikoo kafe na dafa daan faral di gën a jëfandikoo da ne benn benn euh, commande nekk la ne suñ bi mos naa ñëw ànd ak benn taalibe këram mu defaral ko kafe mu ne waaye suukaru ko ndax suukaru tël bi daan jëfandikoo sax moom amu ko booba mu def ko ci benn baraada bu mu doon defee ci réew dafa daan ko waaye bi nga xam ne tubaab bi insisté la xellil ko kaas bi jeexatu ko waaye naan na ci waaye def ci suukar nee na bu ci jógee nee mu may ko baraada bi ak nee bi nga xamee ne sëñ bi dem na daal di jox benn taali bi dama fàtte juróom-ñetti dërëm la xaw ma ñaata daal xaalis la daal ay dërëm ci jamono yooyu bi mu dikkee jox ko tubaab bi tubaab bi ne ko même café bi ma ko jox ak baada bi ak kaas bi bu ko seetee jërum ñaari dërëm am jox ko xaalis ne ma dama ko defaloon rek teraanga taalibe bi daal ko koy sànni daal di dawal fatwa daw mu ne nag café la gënoon fonk loolu itam boo ko seetloo café ak attaaya lu ci médecin yi wax waaye ñu bari ñu ngi aju ci tempérament yi ñu bari café moo leen di gën a yee mel na mu xaw mel ne excitant maanaam daal xaw mën a jege doog nu mu gën a foore bu ngeen seetee ñu bari ci borom itte yu mag yi nga xam ne daaw ñu nelaw lu bari dañ daan liggéey lu bari bari na ci yoo xam ne ñii kafe la ñuy faral di jëfandikoo ñii daal jëfandikoo attaaya am na ci yoo xam ne dañuy tux ku mel ne bin Afghani nga xam ne mooy sëriñu Mouhamad Abdou ku fonkoon affaire euh, kii fumier yooyu la daf ko daan ne yee yaramam pour mu mën a jëf fu mu toll ñi nga xam ne dañoo fànn dañu noppalu te dañoo am itte yu rëy yoo xam ne toujours dañuy bëgg loo xam ne dana leen di dimbali sëñ Tuubaa yii daana ko def daana naan kafe ataaya nag li a la ko daan defal nit la daan faral di ataayaan nit ko bësal itam bés ñu tëdd yaram ndax lool bu daan toll nit daf daan wéy ci jëfam rek bu noppalu bu noppalu ba léegi am na jamono day dem ba nga xam ne day daanu rek mooy dee daanoo ah diggante boobu dana doon noppalu boo xam ne gàtt biir bu gàtt dana mel ne ko noppalu ci diggante bu yàgg yàgg yàgg bu jógee day beesaat delloo ci ci jëf ji dinaa mas nañ koo laaj ndax da nelaw mu ne ah, daanu ko def waaye bu mu ko nekk fenn de maanaam bu mu tëdd pour war a nelaw kon kooku bu euh, doon kéemaan mu fonk li ñuy wax excitant maanaam ñoo xam ne day tax a tawar man nii café bu ñuul dinaa koy fan def waaye ñaari su ma amee waxtaan wu mel nii laa koy fan def wala ma yëg ne dama soj léegi sax la waaye ba tey rek mm, foofu laa toll man ah léegi bu fekkente ne sëñ bi dafa am daan jëfandikoo café murit moom nit moom ku mu bëgg day fonk li mu bëgg sëñ Tuba bari na yu mu bëgg yoo xam ne yonent bi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu daan ko bëgg moo tax mu daan ko jëfandikoo kon du kéemaan murid yi xam ne sëñ Tuba fonkoon na café ñu bëgg café du kéemaan ñu gis ne waa ko sëñ Tuba daañu jëfandikoo café ñu jëfandikoo café du kéemaan ñu gis ne moom la gën a digg ne la jëfandikoo ci dëgg la attaaya mbaay moom daana faje ci lu nekk ba am na góor bu ma nekk sëñ Cheikh Xari Jël nee na dafa amoon benn góor boo xam ne dafa tawaatoon taw ji leen jaaxal lu ñuy def ko nee bu ñu dikkee ñu sëñ bi sëñ bi ne ko waral taxawal nim mu ñëw daal di si ne ko suñu borom nee na fekk ñu ne dafa amee jàngoro Kajoor amewoo jàngoro Kajoor amewoo jàngoro Saalum amewoo jàngoro Jolof lii war nga ko naanee ba mu jeex ba mu jeex mu wér waaye loolu moom du takk ci lu dul ne rek guddi bon ci jox ko sax mën na koo wéral ndax am na nit koo xam ne kooku moom ku ma ne sax man dafa nekkoon ci kër benn sëriñ sëriñ bay xanaa di ko am maqaama ñaan ak ñaan ne ko na ci ñëpp naan na ko def ci taanu ndox bu fees tànk ci jox ku ne moom këll ba mu ko def mu daal ne ko sëcc ba mu jeex mu kër ko këll bi daf nag di wax lu nekk léegi nag biñ ñëwee fekk sëñ bi jàpp ñu nekk li ko mu ne waaw dana faana ndee ba ñu ne ko ci la dëkk mu ne dana saaga bàyyam ñu ne ko ci la dëkk mu ne na ko bi mu jàppee ba àggale ci bi suuf nga xam ne ndox mi mu doon jàppee ci la ci la tibb dañ ko ni jox ko ñu ko mu naan ko wér kon daana sañu ci lu nekk li ñu nekk léegi ba naar na naar bu fa tawat loolu benn maama ko mu fa nekk yàgg na ba tawat bi jaaxal dañu ñu def ko buñ dikkee xam nga sëñ bi daal bind téere mu bind téere ñu leen jox leen ko na ko takk ñu nañ ñetti fan la ñu ñaari fan ñu ne benn bis mu wér naar yi nag dañ sukkale nañu seet ban aaya la ci bind wala ban tur yàlla ñu ko tekkee gis mu bind ci ne min abdullahi xadimi rasulillahi sallallahu la wa ila maradi fulaanin ibra bismillahi maanaam leetar bi mu ngi jógee ci jaamu yàlla bi nga xam ne mooy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jëm ci tawat jub ji laa bind leetar bi ne ko na wér ci ndigalal yàlla mu wér moom nga xam ne nga xam ne sëñ bi daal waaw dangaa dellu si ci mbiru tox waxuma ne ne tox dagan na xam nga ñu ko daganal nee ñu gis ñu ko suñ ko bindee tux bi ñu koy xam booba arab yi xamuñu tux te alxuraan dafa ñëw fekk li ñuy jëfandikoo te baaxul ñu ne leen baaxul mu baax mu bàyyi leen ca wala muy lor wala muy wàññi mu xamal leen ko tux lu mu doon bu fekkente ni dañu gis ku ko gisul daf ko bëgg la gis waaye mën na ko gis li ma ci alxuraan ne ma farat naa fi fekk ñu sekki tux gis nga Cheikh Abdul Aziz Dabakh noonu mu ko indilee ñàkk dagan ci sax moom ngir baatin la ku gëmul wilaaya wala gëmuloo si ab si ab da baax ko bañ a gëm moom jàngul woon waaye ulama yi li leen mos a jaaxal bu ko Ahmad bin Mubarak laajee bu ko ko rek xolam sedd mu xam ne lii mooy dëgg ba ci lu ulama yi xamul yu bari nee na moom buñ ko laajee lu xaraam wala lu dagan waxtu bi dañoo ca diiwaan ba bu gisee ñëpp di ko jëfandikoo mu xam ne lu ñu sopp la bu ñu gisee ñu ëpp si nit ñi di ko jëfandikoo mu xam ne lu dagan la mu xamee ne lu néew ñoo ko ci jëfandikoo borom fañka yi mu xam ne daganul bu fekkee kenn jëfandikoo yi mu xam ne lu duñ ko laajee tux bi mu demee kenn di ko jëfandikoo ci waa diwaan bi am na beneen wàllu boo na dafa dem ci wan ko ñu ko wa yuxillu lahum at-tayyibaat wa ko alquran waxee yonente bi salaatu dafa ñëw di leen daganalal li teey yàlla bëgg ak bu yu bon yi mu di leen ko araamal mu dal ci jëlee déggee ci ne kon fóon lu daganul la waaye buñ seetee ne masal yu bari yi nga xam ne ci lañ dëgg ba daganal ñu ko lu lu rafet la bu njëkk bi moo di laa yaxil lil mukallaf an yaqala fi'lan xataa ya'lama xukma allahi fiihi nee ni sëñ tubaab ñu ma yàlla baal boobu du mag ci la attee woon muy masala mu nekk ci lax dara yi mu ne gannaaw ñu ngi ci yorante te daganul mu kàllaf jëfandikoo lenn lu mu xamul ndax lu dagan la woon a dee kon araam na kon daganul ci yow ba ba nga xam kon li ci yàlla nam li ci yàlla waaye yi yàlla araamal al israaf yàq la ndax yaa di ko def ci loo xam ne du la reggal neexul amul njëriñ jëriñu la dara ñaareel bi wala tulqu bi aydikum ila tahlukati alquran nee na bu leen di dugal seen bopp ci lu leen di alak lu leen di lor masalan rek te médecin yëpp daje nañ ci ne poon am na nicotine nicotine li muy def ci xol xam ngeen ne day lor nit ki loolu tax na araam yoon ñetteel bi aada ju bon la ndax loo tàmm dootoo ko bàyyi li toi ne l'habitude est une seconde nature kon day daal di mujj nekk loo xam ne dootoo ko mën a bàyyi ñetteel bi lor jullit ndax boo dee tux dend ak ñu tuxul nga di leen sànni saxaar si te bugguñu ko yaa ngi leen di lor te daganul nga lor jullit yéen kaaba gi nga toj ko ñu tabaxaat ko nga toj ko ñu tabaxaat ko nga toj ko ba mu bari moo gën nga lor benn jullit dañu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ñetteel bi itam bu fekkente ne seet nga ne ak ah, malaayika dafa sib xet bu bon ba laaj sax laaj wala soble ñorul nga lekk ko muy xañ sa gimiñ araam na nga dugg ci jàkk araam na nga tudd tur yàlla rawatina póon póon a gën a xasaw laaj gën a xasaw soble lu fa gën a bon kon boo tuxee sa gimiñ boobu nga di ci tudd tur yàlla wala nga julli wala nga xër ci nit mu xeeñ ko def nga loo araam kon yooyu yëpp bu fekkee ne rawatina nag yàq xaalis bi parce que américains yi mosu ñu def benn émission bu ñuy wax ne bu ñu ci at mi bu ñu dajale woon ñu tëdd cigarette yi ñu tox yëpp ci réew mi ba mu àgg dana àgg ca weer wa weesu ko nga xam ne sigaare bi nga seetlee benn bu ci nekk lu muy jar ñu dajale ko jooju alal yëpp ci loo xam ne beew rek lay tegtale ñu ci bari nag weex bopp dañ ndax dañ koy jàng yaa ngi jàng lu amul njëriñ yow daawu ñoo toog yaa ngi jóge ca kaw ga wala ca daara nga dikk fekk waa joo xam ne dafa sol tubay tubaabam di ñàkkaat ñàkkaat yu muy toog ngay mii mu ndongo rek a ba ba nga koy mokkal continuer ca dem bu bëgg ko mën a bàyyi ñàkk fay na la ñàkk bopp la kooku moom ak weex bopp dëgg <laughs> ini Maaf. Ah, Iya, ini benar. Kalau dia. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, mujallid moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rek ne dana man baatu man moom mën na indi kenn mën na indi ñaar suñu borom dana indi ci bopp bépp téeméeri at maanaam bépp xarnu maanaam bépp seexal waaye joo xam ne maanaam koo xam ne dana beesalaat mbiri diine bi loolu nekkul gannaaw ci bopp bopp bépp téeméeri at ne dem boo demee xam ne àdduna bi àgg na ci foo xam ne kenn nit rek pour mu influencer adduna bépp dañuy def bu neexee suñu borom mu séddale ko ci nangami nit kenn fële kenn fële kenn fële xam nga ne adduna bi léegi pour deesalaat diine ci réew yëpp dana jafe dana jafe fekk nga nekk fokk nga nekk nit koo xam ne da ngay am envergure bu mag a mag a mag a mag a mag boo xam ne adduna bépp daf lay yëgandoo di la reyandoo bëggandoo la nawandoo la gëm la bu neexee suñu borom mu def ko ñaar ko neexam kooku moom mi ngi aj ci coobari suñu borom rek waaw monsieur wala ak laaj yi jeex waaw dafa bari kon man naa ne ñëw ñu ah monsieur ah gaa yi kuré na nga def kuré daa jàng rek mu yàgg waaw loolu la jàng rek alhamdulillah bismillaahi rahmaani rahiim sëriñ turu kuréel gi nga xam ne moo tudd kuréelu sàttali jullit géej gi maa ngi lay sant bu baax a baax cant bu jóge ci sama xol jóge ci xolu ñiy toog di la seetaan ñëpp ndax xam nañ ne guddi yi ñu tollu yow la yàlla def ngay xalifa maam Cheikh Mbaye loolu yan bu diis la xam nañ ne ñu ngi lay soxla ci bitim réew xam nañ ne kuy joxe xam-xam nga kuy jàngale nga kon xam nañ ni ak jot amuloo ko waaye bi ma waxee yow danga ma ne sëriñ Muntaxa de lépp lu ma ko dégg sooy bool nga engagé ma bind ci sama tur bañ maa sàkku ci téléphone ma ne la lii de sëriñ Muntaxa moo dem ba sëriñ Saaliw Mbàkke mu tàggul nu ko fa wax ko ko sëriñ Saaliw rafetlu ko ne ko nañ ci sonn te góorgóorlu ci mu ne ko dañu bëgg woon bu ñu boo leen joxee ndigal ñu def délégation juróomi nit ñëw waxtaan ceeg yow mu ne ko du ko jar doxale naa la sama digganteeg ñoom loo leen digal maa leen ko digal loo leen tere maa leen ko tere yene ma sëriñ Muntaxa yi fi ma àgg ci moom ak fi mu àgg ci man mel na ne fi mu nekk benn lañ kenn ku ne ci mën naa engagé sama morom waaye ñaanal leen ma rek bu bis baa yàlla def ma tal ko ci ànd ah, ma ma ma fekke ko te tal ma ne la insha allahu dogu naa ci nga ko def yàlla dëggal na sama wax nga ñëw fii ma téléphoné la xam naa ne bi ngay agsi sonn nga lool xamoo sax barab bi amoo ku la fi gindi indi la fi moo taxoon ma toog kër ga fii ne sa toog di kër moo tax ma guddee ñëw fii ma toog di xaar waaye bégal nga bindeef yëpp yàlla na sunu borom bégal sant nañ la bu baax te it li ñu fas yéene def mooy mboolem la war xam ne lii ñi nga xam ne ñëw nañ fi ak lañ fi liggéey ak lañ fi wax ak lañ fi def ñun jàng ko ci alquran ak fulkul machon ak quraniyatu ak jaalibatul maraaxib ak nuuru daari nag yëpp ak salaatu ala nabi cent vingt quatre mille nga xam ne loolu minimum la xam def nañ ko ñaari yoon wala ñett loolu xajul ci réew mii nu nekk xajul ci Afrique sax waaye noo ngi ñaan yàlla yool ba nu bokk kooku réew mi yëpp ñu yaakaar Serigne Touba ak ñi ko yaakaarul ndax moom buy ñaan ñëpp la ñaanal kon nag loolu fas nañu yéene taxaw ci kanam Serigne Saliou Mbacké nii Serigne Touba tey nu sant ko moom itam ndax moo nu joxoon ndigal li ca départ ba bi nu demee ba jàpp bis bi moom lañ dem toog ak moom waxtaanaat ak moom mu rafetlu ko sant nañ sax nun suñu borom sant Serigne Touba ndax carte bii nu def waxtaan na ceeg nun jël ko téye ko denc ko ba woo ku ñu wax Abdoul Ahad ne ko dencal na ko ñu xam ne kon loolu saf na noo ngi koy sant di la sant ci turam ndax lii lépp mooma lu fi yëngu fii rek sëriñ Touba ko yëngal te moom fii nekk nii mooy sëriñ Touba kon noo ko lay sant ci turam te insha allahu parce bi nga ci am ak coono bi nga ci am danañ ko ko wax Serigne Mountakha moom dañ ko koy téléphoné ba dañu koo gis te xam naa ni dana ci bég lool Serigne Saliou ambassadeur ak sëñ Moustapha ñoo taxaw woon wax ji tey ci ngoon ñoom it fekk nañ ci seen xol dinañ sedd buy ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla def la jox la fan wu gudd lool lool lool lool lool lool lool te ko bu wér ndax lii kat njëriñ la loo xam ne lii bu nu sañoon du taxaw mukk yàlla nag dara jeex na foofu laa yem asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbooloo mi noo ngi leen di sant bu baax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 ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقنا بدين ولا تحرمنا وقل لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ولا تدعنا على قلبنا اللهم يا مصيبتنا في بلادنا في كل جهه ولا بنا ان تنقيه اللهم لا تترك لنا في مقعدنا هذا ذنبا الا خبرته ولا مرضا الا خبرته ولا هاجر من اهواء الدنيا ولا خبر الا خبرتها ولا جهل الا اتت ولا سخط الا مهرتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى علينا ما لا تقدر به لك اللهم تقدم ذنبكم على احد من يرجوك صراط المستقيم فان ستلعن من الحج نفس الاجر لا تقدم نفس الاجر الخير اللهم لا بد مولانا تقدم بن علي وسلم وافتح لنا كل باب ذكر بفاتحه ولسانه يا الله من طول لنا عمرنا شح لنا بدلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اعداء من اقل بكنا على كل شيء قادر على اول الصعب القهر يا الله اني ثابت قلب الخاشع المتواضع وطوبة الخجلة مع نسبة وقبلا كل ما له ونقصد ربنا كل ما نختار وربنا كل ذي صعب وذي حرم ويسر كل ذي تأثير يا الله واطلب بنا نهج رشدنا كما ذلل وطبنا الجنة كلنا عاتنا من كل مهلكة وانت ونجنا من بلاء الدهر اللهم اكفنا لاسيدنا واصلاحك ونجنا دون جميع الاهوال ولا تحب لنا بجميع الحاجات وتحبنا بين جميع سيئات وتسولنا من اعلى الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات اللهم صل على مسلمك مولانا محمد وعلى اله yéen bokk yi yi nga xam ne yi ñoo taxawal kuréel bi nga xam ne ñoo taxawal ñoo jóg di nas di organiser daje bu mag bu tedd bi nga xam ne du fi jóg mukk ci njiital eh, murid bu fiir bi ci ak taalibe ñu di ko wax Seyid Nazir Touré ak Cheikh Ibrahim Mbakke ci njiital ñaar ñooñu ñu ngi leen di nuyu te di leen di ñaan ci yàlla ak musalam ak yërmande ak barkeem nekk ci yéen ñi teew yëpp mbokk maa ngi leen di nuyu nuyu boo xam ne mi ngi jóge ci yàlla nuyu bu barkeel bu teey kenn ku ci nekk it maa ngi saafoonte yow saafonteeg respecté la ak eh, am mbégte ci kaw teewaay bi nga xam ne bi teew na ngeen te kenn képp xam ne bii teew nga fi xam nañ ne ñor bu la Sëriñ Tuubaa ñor képp moo tax nga teew mais kenn ku ci nekk am na yitte am na soxla waaye Sëriñ Tuubaa ko jaaral bàyyi léppam ñëw teew kon loolee amal lan war nañ leen ci sant war nañ leen ci gërëm donte itam Sëriñ Tuubaa lu ko waay defal ka ko ko defal mooy jëriñoo loola loola lu mu am amee itam du tee ndax ñu bare am nañu fi te di ko woo tuddoo te taxul ñu bàyyi la nga xam ne lii la la ñu nekk ñëw nekk ci coono bii nga xam ne moom la nekk mbokk yi am naa mbégte lool ci leeral leen am naa mbégte akub cant ci leeralal leen xew-xewum lislaam bii nga xam ne xew-xewum yaqiin la xew-xew la boo xam ne mos la am ndax xew-xew la boo xam ne mën na noo wax ne xew-xew gëm yàlla la ndax xew-xew ba ci am ak gëm yàlla rek moo ko mën a lal xew-xew ba am xew-xew boobu mooy lan xew-xew bi nga xam ne ku eggul ci maqaama siddiqiin yi et mënulaa def loolu def loolu xew-xew bii nga xam ne du fi jóg mukk xew-xew bii nga xam ne yéen a ko organisé ngir fàttalikoo ca téeméere la atam yoo xam ne yi Serigne Touba daf jàmbaar ju mag jooje ki nga xam ne moo nuy xettali al basalul munqid al akbar wal qaid al a'zam صاحب الفضيلة عبد الله وخديم رسوله أحمد بن محمد بن حبيب الله قدس الله سره julli googu nga xam ne sunu yaakaar jooju tey ak ëllëg moo ko defoon ca biir géeju muhitul atlasi te jamono yam koy def mu nekk ci yoonam wa nga xam ne wii ci la ko colonialiste yi jàppoon jëli ko ca euh, fa ñu ko exil jëkk exilé exil boobee nga xam ne sellal na ci sellal na ca jëfam ji nga xam ne moom rek ko tax a jóg ndax bi nga xamee ne dem na ba dellu si tubaab yi dañu ko dañoo jàppaat biñ ko bëggee jàpp ñu am lu ñuy tiit ci moom ñu dal di waxtaan ak cheikh sidia xamal ko ne ko ñibbisi gi kat narunu woon mu ñibbisi dañ ko naroon yor ba mu génn àddina gannaaw bi nag danoo sonal ba nga xam ne bii dañ ne nañ ko mujj bàyyi delloo ko réew ma ba am ba ba seet ba xam bu nee tekk ñu jàpp bu nee tekk ñu bàyyi ko ndax lu am jàmm bu ne yëngalatee dara nag ñu jàpp ko yóbbu ko Madagascar sëriñ bi bi muy jógee Gabon ñëwul ñibbisi dafa ñëw provisoirement pour ñu mën koo yóbbu Gabon yóbbu Madagascar fële lañ naroon a teggeeg moom sax yóbbu ko Madagascar gannaaw bi lañ ñu waaw bu ñu dogoo ci yóbbu ko mu gànt nan la ñuy def conseil privé daal di daje comme nag léegi nañ ko yóbbu mu dellu Sénégal bu delloo Sénégal boo xamee ne yëngal na daal su ko defee ñu daal koy mën a jàpp waaye bu yëngalee dara itam du ñu seet seet jàpp ko ah dañuy fexe ba saqal ci waa réew ma ba ëllëg gi si biir lu ci xewit ñu nekk say mbokk ñoo tax ñoo tax ñu jàpp la Tuuba loolee mu doon defi ba tax ñu yóbbu ko la nga xam ne moo doon néegam muy jaamu yàlla ak liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax bi nga xamee ne dellu si na te yàlla dogal tubaab yi bëgg koo yóbbu Madagascar dañoo waxtaan ak Cheikh Sidiya ndax Cheikh Sidiya xaritu sëriñ bi la mbokku sëriñ bi la te ay wëlëre lañ wëlëre boo xam ne yàgg na lool ñu daal di koy woo waxtaan ak moom ne ko léegi na nga ko ngir mu ñibbisi dañ koy indi ngir toog ba xam dana ne cell la wala déet bu nag mu yóbbu ko Madagascar léegi nag nun bañ mu nekk ci réew mi rek moom la ñu bañ ba tax na bu fekkente ne mën ngaa waxtaan ak moom ñu yóbbu ko Mauritanie kon bu nangoo ñu yóbbu ko Mauritanie waaye nag yow yaay diisoo moom waxtaan ak moom xamal ko ne ko muy kañ lañ ko bëgg a yóbbu man da def yaan lañ ko bëgg yóbbu waaye su nangoo moom dana waxtaan ak gouvernement français ba ñu mën ko yóbbu Mauritanie léegi bi nga xamee ne loo Cheikh Sidiya wax na ko wax na ko loolu bind ko leetar Serigne Touba jot leetar ba tontu ko xamal ko ne ko man day lii sama mébét li ma yor ci njëriñ rew mepp la ko aduna bepp la ko yere waye nak buma ma sañoon ci ëppale so mënee waxtane ak ñoom ñu bàyyi ma fii ci sénégal ah ginnaaw dañu maa wóoloo diku ma buñ ma bayé ci sénégal man na ma wax sidil muxtaar mooy sëriñ gawan ak cheikh sid mbacke buso ñu jëndal ma kër ci ndakaaru wala ndar wala fenn foo xamni bi yaakaar nañu bo fa nekké dara du leen ump ci man loola loola boo ko loolu ci boppam bu ñu ko mënoon man def ci réew mi moo ma gënal ndax li ma yor ci yiw yée adduna bépp laa ko yéene waaye nag sama réew laa ko gën a yéene te fu ma dem yiw woo war a ruus fa yiw woo wa def fa soo mënee waxtaan ak ñoom ñu bàyyi ma fi ci kaw buñ wo ma wóoluwut ñu wutal wutloo ma kër ndakaaru wala ndar wala fu mën a doon loolu moo ma gënal bu fekkente nag mënuñu loola tey man li ma bëgg mooy liggéeyal yàlla ah, liggéey jaamu yàlla ak ma nekkee ci biir réew mi du ma ko mën liggéey mooy jaamu yàlla ak liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu waaw bi nga xamee ne nag yàlla dogal na ndax serigne touba mom liko taxono jog moy jóg do ma adam yeb yépp do ma adam yeb ndax ni mu yene mouride yene ko julit ñi non la ko yene mbolam ko yàlla bind يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادئا ردا يوم nga xam ne yaay buuru buuri yow mi nga xam ne ëpp ngaa fayantoo fayantoo war nga koo jomb maanaam jomb na la maa ngi lay ñaan nga yërëm mboolem li yàlla bind ka wax loolu xam nga mbindeef yépp la yéen yam waaw nekk googu nga xam ne ci la nekkoon ci loolu nag ci la ko tubaab yi jàppee jëmee ko Gabon bi nga xamee ne ñi koy jëmee li ko jëkk jot ci ndigalal yàlla waxtu takkusaan la muy takkusaan ji nga xam ne sama mbokk mu tedd mi mooy Serigne Salihu Mbakke doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha moo nu ko jiite léegi julli googee julli takkusaan bi nga xamee ne Serigne bi nee na bi nga xamee ne takkusaan jot na damaa jàpp ci muxtaar mi bëgg julli ñu ne ma doo fi jullee nee na ma bàyyi ma muxtaar mi jeex ma bëgg julli ñu ne ma doo fi jullee ma bàyyi ba dara yu ji bëgg jeex ma bëgg a julli ñu ne ma doo fi jullee ma bañ warugaru yàlla faat ma ngir ma jàpp ne maanaam bëgg a mucc wala am lenn lu ma jënde ndigalal yàlla loola wërta am loolu moo tax bi ma xamee ne waxtu waa ngi bëgg a faat ma fab der bi sànni ko ci géej gi jol wuti ko ba may demit dara taxul jàpp ma woon ne danaa mucc waaye ndigalal yàlla yàlla xam ne ndigalam moo ma gënal sama bakkan loolu rek moo tax nee na ba xamee ne dem naa ba julli ba noppi ba sëlmal dellu siwaat si gaal bi dal di tàllal samay loxo du jàpp samay loxo ma yéeg dugg bi ma duggee tubaab yi wax nañ ma yet ma yet yaa ko gën a def ci àddina yaa gën a gëm yàlla ci àddina yaa gën a gore ci àddina yaa ëpp fitit ci àddina yaa gën a gëm yàlla ji lu mu doon mooy yaa gën a gëm yàlla ji lu mu doon lu ciy firnde mooy boo gëmutoon yàlla géej gi ni mu lëggee bañ faat ndigalal yàlla rek du tax nga dugg ca gëm yàlla bëgg a wéy ndigalam topp moo tax nga jàng nga dem kon te loolu néewaana bu ko doomu aadama defal kon nag yow loolu firnde la ci ne yaa gën a gëm ci at ci gëm yàlla sëriñ euh, li may laaj nag moo di rafaxani ilal jinaani jiimu sëriñ Tuubaa dañuy mi ngi jëm ajjana ànd ak ñett ñett ñooñu nag bëgg naa dana xam muy benn bi benn bi mu wax ni yàqin yel baaxi mamaata sarmada mhm. yàlla musal na ma ci faatu mhm. am fu ma gis mu naan mhm. waccal ayaati wa maa ci ci sunnan sama beeg sama dund naa ko def ci sunna ma bëgg a laaj yooyu ñaari wax daal sama jéggi-yëg ci ñu leeral ma ko asalaamaaleykum rafaqa ni ilal jinaani jiimu wani siwaaye zafriha rajimu ñoo ne jaaratu maa ngi li sëñ bi bi mu wàccee liggéey nga xam ne jógee gu fi xam ne li ko suñu borom mayoon mu dundaat ko fi sax xam na ci lu bari loo xam ne daf koy dindi bàyyi ko bi nga xamee ne nag waaye liggéey lu mu fi doon liggéey def na ko ba noppi xam ne suñu borom tegati ko dara li moom la indi ci suuf bi wax al iidu al iid mooy nga wàcc liggéey bokk wax bu dara bëgg xataayaat yi ka yàqinu am na kii yu bari faram fàcce yi ci bari yoo xam ne jamono bi di ko di ci xaj waaye bu ñu ne euh, bu muy way jaawatu nga xam ne wa umri ilal jinaane iidu lim fi toog diggante boobu ba ba muy dem ajana iid lañ ko tuddé ci mo ci taxaw iid moy sun borom tegatu la dara jaam nga buñu gorél ba libre nga bu waxé ne jaawartu bil furqani rabbil mayin ñeenti noon yi la indi malak nafsi muy an nafsu wa safaxatu lain lain moy shaytané nafsu seytaane nafsu nafsee wa safaxatu ahadtu min duniyaahu muy ad duniyaahu زاد الجنان من قادر الهواء من الهواء نفس الدنيا نفس الشيطان أو الهواء أو الدنيا مودا دي جيلو سيرو دال دي كيب نيت ني نتي اندال ما اجي رافقني الى الجنان جيمو مي نفس مي الهواء مي اك الدنيا مودا دي كي بير بما رافقني الى الجنان جيمو ولي فاي جزء الرجيم كرسي ان لا اله الا الله تبارك الامر ملك نفسي تكمل بيه nas ko moom nee na moom na ko ba nga xam ne fu ko neex la koy jaarale amatul dara lu ko bakkanam di laaj lu bokkul ak lam la yàlla bëgg yonente bëgg ko mu bëgg ko kon bakkanam mu ngi dund waaye amatul lenn ab jaam la moo raw taalibe boo xam ne bu mokkal kon noonu la ko suñu borom wulli la bakkanam ba bakkanam ni mu waxee ne an nafsu wal xalq wa cheytaanu qad faragu min qasdi durri yi bi nekk taxat farana ni mu waxee ci di bakkanam ak mbindeef yi ak bànneexam ak aduna yépp noppi nañ ci di jéem a lor ñeent ñooñu ñu nga xam ne fekk àgguloo ci yàlla ba àgg ci mushahada fi mu toll dina jéem a lor nee na moom naa leen moom misaal nag ci jawaat bi nga xamee ne ànd na ak liggéeyam jihaad bi naf moom def na ko ba jeexal ma nga si nafsiya wa zaxta bi layin ñeent ñooñu nag ki ko ñeenteel muy layin nga xam ne moom kenn du ko jëriñoo ci dara ndax daram baaxul moom daf koo sori daf koo sori wa zaxta bi layin axasunu dunyaaw adduna nag daf ci xamu ci lu dul lim ci yóbbuloo rek ba àjjana axasunu dunyaaw zaadi jinaan man qaadal hawa hawa mu tam lim ne hawa man taxaadil xaqi wal xaq diinuna bànnee xam itam natt nañ ko ni mu natt ni ñu ko naxal ba kanam ba mu moom ko ba nga xam ne bànnee xam li yàlla bëgg yàlla ci bëgg ko rek mooy doon bànnee xam amatul bànnee bu jëm keneen ñett ñooñu muy nafsu ak xawaa ak dunia ñooy ànd ak moom ba ajana ndax tàggat ci moom ne kii kii mokk na kii du jublu fu fu mu ko jëmee kii tànn na ci maanaam li mu yóbbuloo ba jëm ajana rek li ci def soxla wu ci dara bëgg ci dara mu di àdduna kon ñett yooyu yëpp pare na ci ñeent yëpp pare na ci ndax a ilm kee daf ko dàq mu fay ko mooy seytaane dootu jublu ci jéem koo lor seytaane naagu na ci moom ay seen i ay seen nit ñi laa wax indi jéewal iblis naa dee si biyaa wax na leen li mu daan sikkar li ci ëpp mooy inna waliya allahu alladi nazzala kitaba wa yatawalla salihina kon ñett yooyu nga xam ne mooy jiimu ji mooy bakkanam bi mu moom ba nga xam ne dootu ko sant da loo xam bànneexam xam bi nga xam ne jublu na ci yàlla rek lil xaq xam ak diine nga ak adduna bi nga xam ne lim ci aajowoo mooy lim ci yóbbuloo rek ba ajjana mooy lim ciy jël lim ci sutraale yaramam lim ciy jëfandikoo kooku itam ay xisa yu bari ajjana ci am na benn jigéen bokkoon ci waa bari sax daf naa fekk waxtaanam bu wax nan lay jëfandikoo ci ñam dafay gudd ak ban waxtu la koy def ak ban xeetu ñam ne mu ngi ciy laal waxtu muy doon xam na na muy jëfandikoo xam ne ñetti baaraamam yi du ko weesu te nga xam ne kon ñett yooyu nga euh, wax bi mu limee ci jaawar su ñeenti noonu yi kenn ki mu dàq sori ko muy seytaane ñett yi ci des yëpp dañ ko koo noxal ba ñu nekk ay taalibeem ay jaamam ba nga xam ne dootuñu ko jéem a lor lu dañuy jéem a jëm fa nga xam ne fa la ngërëmal yàlla nekk ñu ko waxee ci alqalbu ام يكفر والخلق والشيطان قد فرغوا من قصد ذري يد من التخطيما نوم عبادة رب لا شريك له قد يدبر عين في الحكمة بل لا بابو موي صراف سنين بين نجيب بين بجنة بين نيانا سنبرام سجل نكو دي سنبرام سجل نكو دي دي بي سجل نت نت دي دي بي دي موي بوني كي شهد يسنبرام نعم. دي laa taqulu li man yuqtalu fi sabilillahi amwaatun bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaquun bu leen ne mukk ñi nga xam ne nekk nañ ci jihaar ba ñu rey leen ci yoonu yàlla bu leen ñu leen tudde ñu dee ñuy dund lañu fa seen borom ak ki nga xam ne ndax ki dee ci jihaar xam ngeen ne moom bu muy génne këram xolam këram génn na ci ndax ku sa yéenee dund si dafa xam ne calculé na day dee kon dara ci aduna aduna mëdd la dara takku ko ci du ci xeeñ dara di ko ci xeeñ ba nga xam ne bu deewoon sax aaju woowul sang ndax dara aduna tekk ko lépp génn na ci xolam ba muy génn këram génn na këram génn na kër ci xolam parce que yéene dellu ci génn na doomam ci xolam génn na alam alamam ci xolam ak soxnaam ak lépp lu mu am génn na ci ba nga xam ne kooku bu deewee mooy shahid ki nga xam ne dafa def loolu ba noppi dem dee ñu rey ko wala ñu bañ koo rey bu fekkee ne rey nañ ko mu am shahid boo xam ne bu mat la ci na mu génne woon lépp ci faram ba noppi ñu rey ko ci jihaad ci yoonu yàlla kooku alxuraan ne bu leen ne mukk ku dee la kuy dindi la fa boromam ndax buñ seetee dund yi mu doon dund ci adduna ak yi mu daan gis ak yi ko daan neex ak yi mu daan bànneexoo du dara ci la muy am façon borom du dara la muy am fee mu nekk dund ba dund fa nekk dafa mel ni gii moo doon dee gi dee boobu ba muy dund kon la dee woon ba muy ba mu ba mu la dund moom la euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ne añoos niyaamun fa iza maatu nit ki bi bi mu deexee deewu shahid dafa mel ne que bi mu nee ci àdduna dafa doon nelaw bi mu dee dee boobu nga xam ne tudde nañ ko dee te suñu borom ne du dee dafa mel ne booba la yeewu nga xam ne booba la gën a mën a yëg bànneex booba la ko gën a mën a am booba la gën a mën a am lu ko neex loo xam ne lu ko naqari du ca rax te dootu sabablu xéewal gi muy am te du ragal mukk mu dog nga xam ne daal lépp loo xam ne gàtt la woon ci adduna ci bi muy dund dundam gi adduna gi gàtt bu ci newoon ba mu nekkee foofu gàtt boobu dañ ne tey mooy saam taxawul kooku mooy ki nga xam ne mooy shahid bu njëkk bi kooku maanaam mën nañ ne fegal nañ ko dee waaye kooku xam ngeen ne jaasi dana ko dal xeej dana ko jam dana xare ba sonn dana xiif dana mar balay dee ki nga xam ne nag am na darajay loolu te te du jaar ci coono yooyu ba noppi bépp maqaama xam ne kee amoon na xam ne la ñu wax ne deret ji nga xam ne ak gànnaay bi ak yëre yi moo koy seede yomal xiyaam ak pàkk bañ fa mu tëdd bañ ko eh, reye ba mu daan foofu yooyu koy seede kooku ki nga xam ne na moom kenn reyu te génn na boppam ci àddina ba dara ko ko waaye yëmul ci wet xam ne ca la ki ñu rey yem ndax ki ñu rey joxoon na boppam yàlla ba lépp jeex mu génn ci àdduna ba set kii jox na boppam moom it yàlla ba lépp mu génn ci àdduna ba dara topp ko ni yonente bi sax waxee ne na ko ba maqaama boobu ba noppi di liggéeyal yàlla beneen xeetu liggéey ba faatu xam ne boole na maqaamam kee ak beneen maqaama bu ci tegoo si kooku mooy ki nga xam ne mooy ñaareelu darajey dee gi bi nga xam ne tuddeewuñ ko dee ak dundaat la maanaam ak judd la ñetteel bi mooy ki nga xam ne dundam dem na ba àgg ci biir ayib nga xam ne boole na mboolem maqaama yooyu yëpp ba noppi te suñu borom boole na ko ay malaayika yoo xam ne ñoo koy seede boole ko alquran ba noppi mu àgg ci maanam nga xam ne li nga xam ne lenn la ci kaw suuf ak jamono yi ak bis yi ak saa yi yëpp dañ koy seedeel te di ko tak xarit muy beneen xeetu dundaat boo xam ne ndax xeetu xéewal yoo xam ne dañ koy ful fulade boo xam ne benn bu ci nekk bu ñëw rek na muy ëpp moo ba mu ngi mel ne kilo ak ak ton ñu ñuy ëppante kooku nga xam ne àgg na ci loolu nag moom fegal nañ ko dee ba faw dana ci melaw saahir yi nii dana jaar ci ñu nit ñi gisee waaye fekk na dee boobu ak dund ci moom ndax na ruux di tàqali koog yaram ruux ak yaram ruux ku ne mu ngi ci biir yaram ruux ku ne mu ngi ci bitt yaram ndax ruu amul dayo amul distance ruu day wëlbati ko xam ne ne ruu dana soppiku juróomi juróomi xeeti soppiku ci biir dundu nit ki loolu waxtaan nañ ko ay yoon euh, mi ngi ci introduction wu masalik bi sax nit ki nekkee ci biiru ndeyam nga xam ne ruu gi ak jëmm ji rapport bi ñu am ji maanaam fœtus bi euh, nañ koy waxee sax liir bi ci biiru ndeyam am nu mu tudd ruu bi kon jot naa yaram wi dara waaye xamul ci liy xew ci biti dara dégg nga yëgul tàngaay yëgul sedd yëgul dara bu juddoo rapport am ak ruu bi changé waat léegi rapport bu gën a dëgër a jegeeyoo lu yëngu dana ko dégg lu mu xool dana ko gis dana xiif xam ne xiif na dana mar xam ne dafa mar yëpp dana ko yëg waxtu boo xamee ne mu ngi nelaw rapport bi changé ndax duñ ci yëgati dara waaye mat na fekk na mate woon bu deewee ba nekk barsax benn rapport nga xam ne fa ruuga nekk léegi mën nañ ne solo nag fii waaye la ruuga yëpp foofu ñu ngi ko yëgi ci bàmmeel bi ba tey loolu yëpp ay rapport la yoo xam ne ki nga xam ne segal nañ ko segal nañ ko déegi nga xam ne dafay dafay bind fa yàlla yooyu yëpp dañ koy far jaar-jaar yi ak jeexit yi amul benn loo xam ne luy jëf jum jëfoon joo xam ne dana ko dana ko topp ndax ñun ñëpp seen jëf daañu ci rendre compte bu ñu demee ci bàmmeel daañu yenn yi daañu yëpp tiisaayu jëf jo wala naqari waayu jëf jo wala màggaayu jëf jo wala wéyaayu jëf jo ndax nit ki waxtu woo xam ne ñu ngi koy dugal ci bàmmeel am na jëf yoo xam ne daf koy yóor di ko njëkkante muy jëf yu baax wala muy jëf yu bon bu fekkee ne suul nañ ko itam ba laaj toog bàmmeel ak yëpp dana di am ki nga xam ne sabab nañ ko dee yooyu lépp la waaw si mul mawti maanaam li nga xam ne dafay tegu ci dee yëpp du ko am kooku moom mooy ki nga xam ne mooy dund dund dafa mel ne ku jógee ci ay nelaw jëm ci yeewu kooku mooy ki nga xam ne dafa mel ne ku jógee ci dee jëm ci dund nga xam ne day considéré dee dundam gi mu doon dund ci àdduna ak dee ci bu ko xiyaatee ci dund gee muy dund fee ndax roo yi ci barsax yii nga ca kaw a kaw a kaw yii nga ci suuf yii nga ci diggante yaa nga ca tabax li suuf ba ca suuf a suuf yii dañoo lëndëm ba ñuul tëx xasaw yii dañoo leer nañ dañu leeral seeni morom roo yi am na ci yoo xam ne duñu duñu takk duñu tax gën a gërëm dañuy wëndeelu dañuy wëndeelu di yéeg ak di wàcc ñi nga xam ne nag fegal nañ leen dee dañu mel ni ni ñu doon dundee nga xam dañu mën a dund bu raw boobu ndax dañu mën a ñëw ci àdduna mën a xetle am na ci seen ñoo xam ne dañu mën a tërbiyee ba fekk nekkatuñ si nga xam ne seen dinaa xam noonu lay tërbiyee xam ne kon lii eh, sëñ Tuubaa wa qaani al mawta wal amraada yarfauni bi ruuxi wal jismi lil jannaati wa raaxi suñu borom fegal na ma dee mooy yi ànd ak dee yëpp ak dee gi nga xam ne mooy sunnatu la'atul mawti te ne suñu borom fegal na ko ko ndax na kulli ci alquran yëpp ñett ci matale ñu ne ñeen ñoo ci matale wa qaani al mawta wal amraada suñu borom fegal na ko kon eh, dee fegal na ko itam tawat yi tawat yi itam fegal na ko ko ruuxam ndax yar feebar day def jeexit ci ci roo ba nit ki tayal jaamu yàlla wala ni mu soppe woon yàlla wala ni mu ko kilee woon am lu mu ci def taasir waaye moom du am taasir ci maanaam tawat wala gaañu gaañu wala dara du am taasir ci ci ruux yi du am dara loo xam ne moo la jëlee waxaane moo tax amara yàlla ni bi roo yoon bisu di jalaati wa raay suñu borom daf may yëkkati bi ànd ak sama roo ak sama yaram ba àjjana roo ak gis mu ànd dafay gudd waaye ci guddi gi rañaan gi dañu naan ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yi ndax ulama yi yàlla dañuy wuute ci naan ah yonente bi sallallahu alayhi wasallam rañaan bi rooxam rek demoon ñii ne rooxam ak jëmama demoon ñii ne gént li sax am na suñu ko wax ñii seqantal ne maanaam lisra bi diggante makka albaytul muqaddas dégg nga moom ci gis mi la waaye mi'raj bi yéeg asamaan roox rek la lépp ñu bari ñu ko wax waaye lépp di di gis ma di roox la gis mi la ma am na ay conférence yu bari yoo xam ne misaal nañu ko ak ci yenn waxtaan yi gàmmu yeeg waaw ñun léegi waxtu yi di jote ah, déggoon ci fan yi ci rajo Dunia mhm. ku wax ni mhm. euh, xam-xam yi ci gën mhm. Sëriñ Tuubaa la ko askan ci ay bayit yoo xam maanaam bayit yëpp nee na xam bi ci gën mooy xam-xamu tawxiid ak tafsirul Quraan muy laaj nag maanaam loolu lan lan la baat yi teg waaw waaw lu ama am la ñi nga xam ne noonu la toftalee yi gën ci xam-xam toftale ko yi gën ci jëf toftale ko yi yées ci mooy ba mu àgg su ma saale ko ginaan ci bopp bi xam-xam yi gën حكمه في القرآن التوحيد القرآن خم خم خم جنة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقسامه إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون لقوم يتفكرون قوم يتفكرون dañoo sant alquran ñu di ko jàng te di ko settantal di ci waaru waaye waxtaane loo wuñ ñu firi loo wuñ ñu ndax mënuñu koo xam ndax alquran nee na wa maa yaalamu taawilahu illa allahu القران في بوم دوغا خام تاي جي يونس صلى الله عليه وسلم نه بالقران حد ومطلعون لما من حرف من حروف القران الا ولها ظهر وبطن انا بين حرف بين ولي البطن بطن الى سبع اقطين القران دا ام بير ام بيتي بير بابا انا في بير بير بابا انا في بير بابا انا في بير بامي جيروم بير خام نيني باخ جيروم نيار اك جيروم فك عرب دا فا واخ جوبلي سي لو باري رك واي نمو سي لين اي القران boo seetee ahlu tasawuf ñi nga xam ne firi nañ arab bi def nañ tafsir bi te firee ko ci xam-xamu tasawuf ni ci tafsir boobu nga gis moxi bi nu mu arab yi def nga seet yeneen yi olama yi def nga xam nga daal di xam ne kenn ku ci nekk ka sa xel yam ak sa xam-xam mas naa fekkee jëmm joo xam ne nee na tafasir yii nga xam ne olama yi ñu ngi koy firi da nga koy yër léeg-léeg nga gis ci loo xam ne sa xel bi dem ci lu dul nañ ko gastoon ndax dañuy nekk ci di ngër ngëri ci loo xam ne xamuñ ca dara القرآن في بطن لفوحنا وأنت من كتابه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيعتبرون ما تشابه الاتقاء الفنة والاتقاء الثاني وما يعلم تأويله إلا الله كون القرآن دا فا تي ديك مساله يو خامل ام الكتاب موي ناي تي ديك لي اك تي nga xamne hadith ko firi ci lañ jëlé ci lañ jëlé xam xam fekk ak li xam ci tawhid yalla nabi sallallahu alaihi wasallam dafa ñu fekk ci sahaba yi mu mer ba mer ñu seen ci kanamam mu ne du ngeen dañ di fab alquran yàlla ji di fab lii di dóor ci kaw lii xamu leen lu alagoon ñu njëkk ña du lu mel noonu xamal na leen ne alquran lu ranji la du xóota xóota xóot a xóot la lu yéeme lu lu doy waar la Seydina Omar benn waaye laaj na ko ñaari aaya yu mel ne dañoo contradictoire sidna Omar maanaam góol bi mu amoon la ko dal di dóor ci bopp tere leen loolu buñ masaan nekk ci alquran di wax yonente bi sallallahu bu leen fekkee daf leen di jajji naka noonu saxaaba yu mag yi loolu xam nañ ne alquran xóot na xóot boo xam ne nekk loo xam ne ku nekk war nga ne ca ca wax di ca wax waaye nag li nga xam ne moom nga ci xam ne di ci waaroo xista yi muy nekk ci muy ñu njëkk ak fa ñu jaar ba alku ak yeneen alal ak ñi suñu borom di nettalee ay mbugalam ci ñi nga xam ne dañuy wacc li mu tere di def dañuy wacc li mu digle di wacc bañ a def di def li mu tere ak yi nga xam ne daf koy indi ci xeeti xam-xam nga xam ne yow da nga koy ballu muy xam-xam boo xam ne dana la jëriñ waaye népp loo xam ne da nga faa taxaw dégg ngeen sànq bi may wax ma naan ñoom léeg-léeg li ñuy tuddee bàkkaar mooy fa ñu toll woon démb fa ñu bu ëllëgee ñu weesu xam ne xeet nañu la ñu doon wax démb ba ko tuub nga xam ba pour ñoom ñu xam ne lii yellu ci suñu borom lu mel noonu alquran ni ñu waxe ne benn waay boo xam ne ci ulama yu mag yi dafay jàng alquran nee na man de dama daan wàcc alquran bis bu nekk benn yoon waaye ni ma koy seetantulee ma dem ba nga xam ne damay wàcc alquran ci semaine ma dem ba mu yàgg dama koy wàcce ci weer ma dem ak ma di ko wàcce ci at ma dem ba mu yàgg ma di ko wàcce ci wàcce ci ñetti at léegi nangami at a nii ba léegi mënu maa fexe ba wàccee àggale ak ak aaya bi ndax alquran bi ndax kéemaan yi mu ci yi ko ciy seeñu ak waaye du loo xam ne li dana ko di waxtaane wala mu ne lii la ci yàlla jublu waaye li ci yàlla ubbi ci xolam mu xam ko ci xeeti xam-xam rek lu ko ci ballaloo loolu mooy ni ñu waxee léegi ne inna allaha mahana waxoon ñu sànq la noonu ci sëñ Tuba wax ba ne képp koo xam ne xamuloo ni jëmm yàlla ja nekk ak na mu mel mënuloo xam ni mu ànd ak bindee yi yu ne noonu dafa bari ci alquran moo tax limaam alxasaali rabbil taala anhu nee na li tax aarifoona billahi ragal firi alquran ak ragal wax ci tawxid di ci xuus nit ki bu tolloo ci sukuraat ba nga xam ne kumpa yépp day fis ci moom li muy njëkk a jàngal mooy fas fasam ak li mu waxoon ci tawxid ak nam maanaam nam fase woon ci tawxid ci digganteem ak yàlla bu ko defee mu daal di gis ne ay erreur yu bari ci mutti ñaaw njort ci boppam te suñ borom fa fa ko jaam bi toll rek la koy toll la koy toll moo tax suñ wax na ko ci masaalik ci naan su ma is axbaru bi annahu inda zunun abidi min xayrin aw sharin yadin su wax ne xawf wa rajaaw li nit ki war a boole waaye waxtu woo xam ne ne dee ngi jege na rajaaw ëpp na yaakaar ëpp ndax ki deeaale yaakaar dana fekk suñu borom fan ko yaakaar waaye su nga xam ne nag dafa deeaale xawfu maanaam ni ñu nettalee leen suñu borom fa ko jaam bi ko féetale rek la koy fekk dañ ne yontu yàlla Isa ak yontu yàlla Yaxya dañuy def waxtu wu ñu dajee yontu yàlla Isa ne ko yow mooy yow lu la jot waxtu ma dajee nga mel ne ku ñu roy doomam ci njàqare mu ne ko yow itam lu la jot bu ma dajee yow rek nga bég loolu kontaan di ree suñu borom ne yéen ñaan ñëpp laa bëgg waaye ki nga xam ne moo la rafet njort ci man ba fu mu toll diree a ma gënal xam ne kon alquran dañu sant nañ ñu waaru ci sant nañu ñu jaamu ci yàlla ci waqaf sant na ñu bàcceelu ci sant nañu ñu màggal ko teg ko fu nekk di ci waar nag ci kenn dana xam waaye bu fekkoon ne ku xam alxuraan rek lañ sant jàng alxuraan kon duñ santaane jàng alxuraan te ñëpp lañ koy sant ndax Seydina Ahmad ibn Hanbal radiyallahu taala anhu ba mu géntee gis suñu borom tabaraka wa taala daf ne ko anal gan xeetu jaamu nga gën a bëgg nit jaamu la ko mu ne ko jàng alxuraan mu ne ko xam nga boo xamee maanaam mu ne ko boo ci xamul dara boo ci xamee yëpp nga xam ne kon alxuraan buñ ci xamul dara itam ñu sant ko màggal ko xam ne lii wax yàlla jox ko xàqam ci nu mu ko mënee bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy naka noonu nag li gën ci alxuraan itam nga di ci def tafahum ak tadabbur mu am laakin imaadu lamri wal qasdu ladal huma tadabburun tafahumul ajal loolu tekkiwul nag ne nañ koy firi tekkiwul ne nañ koy firi ndax bu alquran ne yaa ngi dina amul taqullah ragal leen yàlla fa sunu xel sunu xam-xam yam ci ragal rek lañ cee xam waaye mën nañ koo jëriñoo mënuñu ne nag ittaqullah jib la ci yàlla jublu lépp ba mu jeex xam nañu ko bu ñu suñu borom dee wax nag li mbiri kenn ci aarif yi di wax lim digaale moom mënu moo xam lépp waaye mën nañ cee waaru rek xam-xam nag du mu dañ di ko ci wut ndax mooy ndeyu xam-xam yi waaye nag bokkul ak nga taxaw ne yàlla lii la na ma ci nangam nangam lii la nangam loola moom mm, buñ ko daganalee borom ñi nga xam ne dañoo nekk aarif ko laa ko ñoom ragal nañ ko seen tubu daal daawul nañ ko ci alquran dégg nga li ma wax ne li ma wax ci mm, ci alquran dañuy ibnu wax kon bu fekkente ne dañu ne xam alquran bokk na ci gën ji xam-xam yi xam-xam yi ma alquran boo nga xam ci loo xam ne boo koy jaamu boo koy jàng mën a teewlu sa xol mën a tiit nga mën a yëg ragal yàlla bi nga xam ne moom la alquran di joxe nga taatan barke alquran ah xam ci ndax saq biñ ci jëlee na muy jaamoo yëpp yonent bi saa sallam misaal na ko ci xadis jàngale na ko ci xadis téere saq yi indi nañ ko mu def waaru bi ak yéemu bi ak xam ne rek lu mu ci xam rek lu tuuti la tuuti la nan xam nañ jàpp loolu la noonu la. jërëjëf ñaare kon moom. waaw. tabaarakallah loolu leer na fii dafay laajaat mm, alquranul karim ndax junj na junj géej gi wala hadis junj na ko. muy laajaat ba nee ne bi mu jullee ci géej gi. Mhm. naka la delloo ci biir gaal. muy laaj yoo xam ne ba euh, sëñ Tuubaa bu mu jëlee ci géej gi daf la mën a delloo ci gaal gi loolu mbiru taarix la histoire la ñi ko ñi ko doon xool ba mu dellu ci géej gi ak moom ñoo ko xam <laughs> te yaakaar nañ li ñu itteel du loolu <laughs> li ñu itteel mooy dellu na ci géej gi rek xam nañ ne ci mën a laal daram ci julli ci ci géej gi julli ci sa du lakk garab du tooy moom mën na delloo ci gaal gi rek na mu ko neexee leen gëm loolu rek loolu moo ñu ci moo ñu ci itteel <laughs> léegi bu njëkk bi mooy alxuraan ndax jigéen ko wala déet waaw alquran junj na ko ndax nee na boo seetee alquran ak junjam ci ko xamul day mel ni junjul ndax bi mu ne alquran ne maa farat naa fi kitaab min shay'in amul dara lu nu sàggane ci téere bi alquran benn waay ne ko waaw ndax alquran wax na kon mburu mburu yu sàngam du lekk ñaata kilo la mu ne ko waaw alquran wax na ko kay mu ne ko xam fu mu ko waxee mu ne ko ne fasalu ahla dikri in kuntum laa ta'lamuun boo demee ca ca boulangerie ba nga laaj ko ñu wax la ko. waaw ñu ne ko waaw kenn gi ne ko waaw ma ne dama ne waaw ndax sori moom wala dëkk sàngam ci dëkk tubaab bi moom alxuraan bi ñu ne ko waaw waaw mu ne su ma ko waxee mu ne sa urikum daaral faasiqiina yu bare bare bare bare bare ci ci mbiri alxuraan léegi bu fekkente ne <laughs> dañu ne ndax julli ci géej gi sëñ Tuubaa def yi mu ko def waaw da alxuraan bi jëne ko ne ah, waaw alxuraan bi jëne lu nekk alxuraan bi jëne lu nekk maa farat naa fi kenn min seen sax dafay waaye alxuraan bi jëne yu ko gën a yu gën a jege itam ba tey loolu ndax moom ina laa yafalu maa yashaa suñu borom da ko soob lay def loolu kon jullit sëñ Tuubaa si géej gi bokk na ci soob suñu borom ah, inna allah yafalu ma yashaa suñu borom day def lu ko sopp boo ko dugalee foofu xam ne mu ngi suuf ndax bu amul woon suñu borom du ko def bu soobul woon suñu borom du ko def kon nag soob na ko def na ko wax na ko tey xam nga yafalu ma yashaa yafalu ma yuridu itam suñu borom daañu ko gis suñu borom daañu ko gis suñ borom daañu ko gis ay gis daañu ko gis yombal xiyaam mooy taxe ni fookal kasi bi laxmar bu leen njëkkee fekk foofa duñ ko xam suñ borom bu dikkee meloo xam ne xamuñ ko bu dikkee ne leen maay suñ borom ñu muslu ci moom dañuy muslu ci moom mu delluwaat bu dellu siwaatee nag dikkee meloo xam ne ñëpp koy xam bu ñëwee ñëpp dal di si biir ñene nag ndax ca yoon wu njëkk wam nëbboo mbindee fi ba xamuñu ndax aarifoon bilaay daañu ko xam ñoom booba xamoon nañ ko mu ne ñu ne waaw waaw ñoom xamoon nañ ko moom moom réewu leen woon waaye nag ñi ñëwinu ñaareel bi moom la fexe ba moom la def ñëpp xamal ko boppam bu la ñëwee suñu borom tabaraka wa taala day feeñu jaam bi jaamu jaam bi ci kam darajaam ci kam mu toll ci moom loolu la koy feeñe dégg ngeen wax léegi ne Seydina Ahmad ibn Hanbal nee na gis na suñu borom ci gént mën ci gént kon waaye suñu borom boo koy see ci gént lu mu la wax rek dëgg lay doon te day ubbee kon li mu wax limaam ahmadu ibnu hambal ne ko li gën ci ñu di mooy alquran xamal ko ne nga xam ko ak nga ñàkk koo xam ne waaye nañ ko jàng ak charte yi kooka borom feeñu na ko waaye ci ko feeñoo ci gént kon feeñu suñu borom day feeñu nu ko neex nag lay feeñoo jàmm bi nu ko neex lay feeñoo ni mu waxee ni mu waxee mbindeef ñi وما قال لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وعي حجاب فيرسل رسولا فيولي بإذن ما يشاء ثم قال بقي في جس بس من سوين الجانب جاوب جانب تي غناو تيميري جني كيراي خم ولي بو خم دا واخ مروم دي نكو اي سوي سين سي ابي جيل بستاني دا دا جاري ني جاري دو واي من كمان ما جيس مروم تبارك وتعالى ba noppi nga di ma wax naan boo gisoon Cheikh Abou Yusuf mu ne ko soo gisoon Cheikh Abou Yusuf Bistani benn yoon rek moo gën nga gis borom tabaraka wa taala moo gën ci yow nga gis ko juróom ñaar fukki yoon mu waaw loolu na mën a demee mu nekk suñu borom bu lay feeñu daf lay feeñu ci sa maqaama nga attan ko mën koo gis Abou Yusuf Bistani da nga ko gis mu nekk ci maqaamaam mu jëriñ la lu bari nga attan ko mu jëriñ la lu bari wala attanoo ko nga faatu mu ne fu ma gisee mu tekkee na ko bi fenk rek ma ngay di wàcc di bartalik ma ngay fajar mu daal di toog ci béréb te di séenu rek njolextanal doj di battala gis ko naka ko ne jàpp rek daal di xaaju daal di bëteeni ci suuf sedd guy daal di dee bi see abus bi seen ak mu ne ko déet mu ne déedéet ci maqaamam dañ ko ko nëbb ndax attanu ko bi ma gisee nag mu gis maqaamam ci sama biirub leer mu feeñ ci mu gis ko rek attanu ko looloo ko rey mu dee te kooku ne daa nga gis suñu borom tabaraka wa taala waaye nag atti gisee nañ suñ borom digg diggam la mel xel xalaatul di ko gis ci àdduna wax yaram attanu ko yonente bi salaa sallam ñetti yoon la ma sa gis Seydina Jibril ci melo ko yàlla bind dëgg dëgg ndax Seydina Jibril bu daan ñëw day indi weneenu melo kenn ci saxaaba yi wala benn xale du góor bu rafet wala ki benn nit mel nii wala nii muy ku ñu xam ci saxaaba yi wala muy keneen ku ñu xamul wala ko am melo ne ko noonu mu dikkee ay yoon yoon yoon waaye ñetti yoon ñi nga xam ne moom la ko yonente bi salaa sallam gis ci melo ko yàlla bind dëgg bi mu ko njëkkee gis dafa daal di xam bi mu xamee ba xëmbaliku Seydina Jibril ne ko ay ay bo gisone kon noonu wala nga gis ruux ruux ay yu bari ñu tuddee ruux la sidna jibril ruux la amna na ruux boo xam ne allahul mahfud alquran it daañu ko tuddee ruux boo xam ne dafay naa ruuxam minam la maatin sa dumal kitaaw radi moom wala ko jalla doon la di mën na sami dara wax ci rek mustaqim am na ruux boo xam kenn du ko tuddee bindé ci melay suñu borom la bokk waye suñu borom tabaraka wa taala dara tëwu ko bu ko neexee mën na wax ak jaam bi wax yan aw muy waraay xijaabi insul bu ko neexee mën na feeñ jaam bi itam min waraay xijaabi kon nekkul lu mustahil ñi ko xamul nag daañu ko weddi ku yër ci téere yi rek te amuloo zawq bi gisuloo leneen jaaruloo feneen doo ko gëm te nu mën ko dugal sa bopp te bañ la ko wax waaye leer na ne yow ba saa moom daañu ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi di ci sa weer wi laafugaarona riis yi da ngeen ko gisee borom tabaraka wa taala yawmal qiyaama waaye bu boobaa tax ñuy mën gis suñu borom ruux rek la ñuy doon ndax ruu même nit ki luy dund ci adduna ruu gi bu fekkente ne jëmm ji nit ku sell la ku ak nit ci li ñuy wax sainteté xam ngeen maanaam daal xam nu ñu ko mën a waxee sell bu mat daal nga sell ñaari dëgërale vertu ak sainteté vertu moom mooy nit ki nga xam ne mu ngi góorgóorlu fu toll jëm ci mat jëm ci di mat rek di góorgóorlu di def lu baax rek wacc sori lu bon ki sori nag ba xam ne mënul la def lu bon moom lu bon ñëwul ci moom bon kon nii sëñ bi waxee ne nun de lu bon duñ ko xool ci suñu bët duñ ko déglu suñuy nopp duñ ko laal suñuy loxo duñ ko xalaat suñu xol sell bu bu sell bu mag boobu nga xam ne moom wax bu sënkate sell boobu bu ko nit ki meloo nga xam ne ay aw meloom la du caa lu koy dikkal ci ay jamono booba lay mën a gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku sell la waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis bee koy gis gis bi nga koy gis li mu lay fàggul melaw li mu lay jox moo lay may suñu borom tabaraka wa taala mën la feeñ ca fa sa daraja toll nga gisee ko noonu wala yu bari daañu ne gis naa sama borom nangam nangam gis naa suñu borom nangam wala gis naa suñu borom nangam yoon waaw waaw waaw ñi ko nangu mën a gëm a koy gëm ñi ko mën a gëm gëm léegi su ñu tegoon ci benn musique dana am ñoo xam dana neex ci ñoom am ñoo xam du leen du leen féete fenn ke problème mu dënk la maanaam li tubaab wax discussion maanaam guula yoon yu bari nag guur doon boo xam ne ki ko yëg moo ko mën a yëg ki ko yëgul mun ko fexe ba yëgloo maanaam am na loo xam ne sax ruusul naa wax ni ko Imaamu Xasaali di misaale ci nekkul góor daal maanaam euh, mënuñu ko misaal jëfandiku ci góor <laughs>